Euh, qui nous ressemble et nous euh, ni ma leen ko annoncé ñu fas yéene euh, c'est waxtaan ak des candidats des candidats à l'élection présidentielle de 2024 candidature qui a été recalée après le contrôle des parrainages il s'agit de maître El Hadji Diouf maître El Hadji Diouf avocat Euh, Maître El Hadji Diouf nag moom il est le président euh, du parti euh, du parti des travailleurs et du peuple moom nag def na un militantisme Euh, très renforcé au niveau de la LDMPT boo xoolee sax am na des sigles de son parti yoo xam ne ça se retrouve un peu dans les sigles de la LDMPT Maître El Hadji Diouf euh, nekkoon fi tamit Euh, allié bu président Abdoulaye Wade dans le cadre de la coalition Sopi euh, il fut euh, député également il fut ministre ci gouvernement du temps de Abdoulaye Wade 2012 il a souhaité se présenter à l'élection présidentielle euh, gannaaw ba mu porter euh, la cause euh, de la lutte contre la troisième candidature de Abdoulaye Wade ñu dem ba ci cuppaandaw la mu ne moom dafay renoncer ci li nga xam ne moom mooy sa candidature parce que kat dañoo nekk ci contexte bu am solo contexte bu lëree grave il faut faire un choix ci wàllu boobu nag la dem allié wu ak ki nga xam ne moom mooy Moustapha Moustapha Niass. Euh, moom maître El Hadji Diouf nag euh, pour cette élection ci 2019 euh, il n'était pas dans les starting blocks euh, ñu ko doon xaar bu baax baax ci élection présidentielle bu 2024 bi le Euh, ba ñu lancé woo ci course parrainage yi bariwul woon ñoo xam ne yaakaaroon nañ ne Maître El Hadji Diouf dina qualifié même euh, pour le second tour la surprise générale il se retrouve avec plus de quarante mille parrains et admis à faire valider ses parrainages euh, pour le second tour il a hélas été il a hélas recalé mu am nag un grand collectif bu constitué wu le collectif des candidats recalés am na sax ay candidature yoo xam ne passé nañu le cap de parrainage yu nekk di leen euh, jàppale ñoom sax saisir nañu président de la république euh, ngir euh, ñaan ko rek mu yaxanal mbir mi ba nga xam ne conseil constitutionnel dina seytuwaat mbir mi ñu teg sur la table beaucoup de revendications yoo xam ne dinañu ci dellu si alors pourquoi mettre El Hadj Diouf fisul ci candidature yooyu am na ñu koy tooñ naan il voulait pas y aller il voulait pas y aller daañu ko laaj est-ce qu'il voulait y ou pas Euh, en tout cas ñu bari doon nañ doon am yaakaar euh, ci li nga xam ne moom mooy sa participation alors je vous le disais il est avocat euh, avocat international depuis l'avènement du président Macky Sall nag bari na lu mu constitué wu dans le pool des avocats de l'État du Sénégal il s'est constitué dans le cadre de du procès euh, Karim euh, de Karim Meïssa Wade mu nekkoon du côté du bon des avocats Euh, de l'État du de l'État du Sénégal euh, pour Khalifa Sall il a été de l'autre côté il a défendu euh, Khalifa Sall mais dossier bi nga xam ne nag moom moo gën a attirer l'attention bu mu gérer ces trois dernières années c'est le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mu nekk l'avocat Euh, de Adji Sarr ñu ñëwaat tamit euh, ci procès bi nga xam ne euh, moom mooy procès Mame Mbaye mu constitué wu contre Ousmane Sonko en faveur de Mame Mbaye Niang le procès État du Sénégal concernant le retrait d'Ousmane Sonko des listes il fait partie du pool euh, des avocats euh, de de de l'État euh, mu doon dossier yoo xam ne tamit daañu si dellu si parce que ñu bëri jàpp nañu tamit en tout cas les pastéfiens leur sympathisants ak même certains membres de l'opposition jàpp nañu ne ni ñu exclurer la candidature de Ousmane Sonko illégalité kese moom moo ko lal euh, mu am un dossier en instance euh, boo xam ne moom moo opposé euh, Ousmane Sonko à l'État du Sénégal euh, agent judiciaire de l'État euh, def na pourvoi euh, waaye nag fixé guñu la date du procès pour vider cette affaire là mais retenons juste que le tribunal d'instance de Dakar dafa dafa ordonner la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier alors il fut député il a fait deux deux législatures il fut également ancien ministre ministre du réseau euh, hydraulique c'était sous le magistère de Abdoulaye Wade alors ñu fas yéene nag euh, sëkk ak moom waxtaan bu yaatoo yaatu sur les enjeux euh, de cette présidentielle sur les raisons de son de son de son élimination bi nga xam ne nag en tout cas ça ne passe ci li nga xam ne nag moom mooy ëllëgu Sénégal le contexte politico Euh, politico judiciaire euh, ñu tàmbali rek suñu waxtaan euh, avec notre invité du jour leen di dalal di dalal suñu invité du jour euh, mu xawoon fee gëj euh, loolu la euh, El Hadji Diouf bienvenue et bonsoir da nga muuf de. comme man merci bonsoir defe naa dañ ko déggoo tey moom mariage de couleur bi grave ah gis nga ko de bi moom bi moom kenn xamul naka la demee ah mais maa lay gërëm ci invitation bi naa fi nag. Mm-hmm. mais fii sama kër la. waaw ñu nay fay yoon. dëgg la. kontaan ci émission bi parce que émission la boo xam ni comme yow da nga garaaw <laughs> yow mën bi fekk rek je ferai ma plaidoirie comme ni ko waxee. Ah. di nga sol sa di nga solal sa bopp robe bi daal. waaw defe naa borom robe ah. ku sol robe du ko mën a gañ a defe naa de. Ah. dem nañ ci dem rek. <laughs> alors ñu tàmbali li nga xam ne moom mooy suñu waxtaan alors maître El Hadj Diouf. Hmm? man vraiment. Euh, je vais avouer que vous m'avez vraiment surpris parce que bi nga commencé parrainage yi pour man euh, puisque amoo yenn structures yi euh, sa temps yëpp euh, euh, dossier judiciaire yi moom moo ko caporalisé woon foogoon naa ne di nga nekk ci ay vingt cinq mille ay trente huit mille doo bokk ci kan ah, je fais un avant doo bokk peut-être ci candidat yi nga xam ne dinañ laal la barre des quarante mille mais vous y étiez plus vous vous y étiez presque xoolal li ñaata laa dugal 64000. 64000 87 par an. xam nga yaa ngi nga cachet bi. Mhm. président commission. mais sa mandataire moom 55000 la wax. non loolu bu njëkk bi. ah bi toto yi la bi. ok bi ñu boolee li ma déposé. Mhm. xam nga bu njëkk bi dama dugal mhm. mu ngi nii ok amul werante yëpp a ngi fi xam nga fii moom yëpp ça se conserve. premier ki yaa ngi nii lu ko envoyé gis gis nga bu njëkk bi mu ngi nii xoola cachet bi nga liir loo liir cinquante cinq mille mm-hmm. cinq cent soixante dix par kon mën a téléphone mm-hmm. léegi mm-hmm. bi ñu indi ay doublon ay kenn xamul ay non disque ñu des ñu des ñaata ñu des ñaata quarante mille quatre cent quarante xam na ko man déposé xam nga 44 000 poussières la ñu demandé woon. Mm-hmm. mu déposé 55 570. Mm-hmm. yaa ngi teg sa bët. Mm-hmm. muy 11 100 de plus. ku ñu demandé 44 000. nga déposé 55 570. xanaa war nga jàll. ah ça dépend tamit ci position bi nga nekk. ak ci laa waroon naa jàll. man septième maa toppoon ci presque ci Boubacar Camara. ndax ak Ibou Soumaré dañ ko éliminé après Ousmane Sonko quatrième ñëwul mandaataram ñëwul am barbier mu ne day xamul lan lay def day demaat ñu bëri ci diggante bi presque bokkuñu man allah kuleel dama doon a jàll mu gisuma lu tax jàllu ba premier tour. mais lu tax jàlloo d'après mais loolu loolu wane sama gars yi la xam naa rek. ñan ah xanaa ñi yore nguur gi. ah waa Benno bëgguñu nga jàll. Ah, nee nañ ma nañu ànd man ne man ànduma ak yéen ñoo far mais la ngeen bëgg laa bëgg. waaw mais Benno kay bu ñu doon euh, yow ak waa Benno amu leen controverse ay ah xarit problème bu ñu amee intérêt ci kale kay ñoom ñoom Diomaye man de loolu laa foogoon ñoom Boun Abdallah ñoom Mame Boye Diao ñoom Aly Ngouille ñooñu kay la ñuy kale bu fekkee ne ñoom am nañu personnalité bi non non non j'étais l'adversaire le plus dangereux yow da xamul dégg naa amuloo une une structure organisée Eh, comme PASTEF comme le PDS. comme Khalifa Sall man loolu laay wax. c'est-à-dire une une grosse machine. politique électorale ñooñu grosse machine. waaw ah. médiatico euh, ak ay réseaux sociaux loolu ah, ma am man machine xam nga xol yi laa am machine xol Sénégal am du jël ay réseaux sociaux jënd ay site internet yu bëree bëri bu ñu xëyee suba ba ngoon jot ñëpp ci man lañu nekk non. wala di fay ay journaux wala ay télé ñu lay wane man dafa dafa doon ree pendant les deux mois ñoo def campagne parrainage yëpp kenn gisuma Dakar moo tax ma ne nga tey yi ma def ma def seeti samay militants fa ñu nekk ñu teeru ma di ñu teeroo buur mobiliser Sénégal yëpp pour ñu parrainel ma loolu structure moo koy def waaw mais quand je dis bul wax parti yi nga xam lu bëri lañu am. non quand je non man waxuma parti bu bëri coow dama ne parti yoo xam ne électoralement parlant. dañoo def seen i preuve. man dama def sama euh, preuve. non électo maître bu ñu ñëwaat ci débat. élection dama def suma preuve gis nga man. maître noo defee sa preuve électoralement euh, parlant. baa ko def laaj ma. député nga fi nekk. waaw laaj ma plus fort sa jàlle. plus fort laaj ma euh, beneen bi nga nekkee député. Euh, ci coalition euh, Sopi. d'accord eh, nga nga bokkoon. waaw may ma donc après boobu ba tey demoo fi élection gagné woo fi élection man kay parti. ma euh, laaj ma tontu la laa wax. dama ni. waaw. en 2012 bi may dem élection man kenn ànd ak waa benn boo ko yaakaar ba pare ñu daane suñu baay Ablaye Wade maa ngi koy nuyu di ko ziar góor gu baax ñu daane ko depuis le 23 juin. man dama radicalisé wu alors président de la commission de l'urbanisme de l'habitat xam ne sunu sunu sunu groupe parlementaire Doudou Wade ñoo ma ko joxoon donc Ablaye Wade mais ba ma gisee ñu ne ay yu yu ma xamul laa radicalisé wu dem ci opposition bi le 23 juin 2011 2012 li ma def jafe naa def boo ko xeebal damaa nekk Benno Bokk Yaakaar parce que ñoo doon Benno Siggil Sénégal ni nga waxee léegi. dama bëggoon nekk candidat 2012 suma grand Moustapha Niass ni ma yow sa mag laa sëñ Moustapha la karam intervenir kilifa yu bëri intervenir fu ne mu jaar fa ni naa ñëw jàppale ko boobu xam na ne man depuis le 23 juillet 2011 man ma maa fi nekk mu ne jàppale sa mag bu ma paree ba man benn mandat lay def jàppale nga nekk président Niass nga may dégg yow xale nga encore loolu tax ma renoncé sama candidature en 2012 ana Niass ci benn sigil Sénégal. mais bay ma may foore bay salama bi ñu demee deux mille deux second tour ñu dem ànd ak Macky Sall créé Benno Bokk Yaakaar gagné bi ñu gagné ñu nekk ci ay quatre mois ñu ne dañu dem élection législative xam ngeen un président bu gagné dem état de grâce réew mi ñeewul demal boppam Idrissa Seck Macky Sall ñeewul demal boppam APR mooy Macky 2012 Moustapha Niasse ñeewul demal boppam muy Benno Siggil Sénégal Tanor yàlla ko yàlla yërëm benn ak Tanor. ñëwuteel boppam ñu boole ñoom ñëpp def continuer def benn liste député man leen man député kenn du ma ko may ci yéen laa bokk mee maa ngi wuti député man kenn ma génn bennoo dem defi sama campagne am plus forest moment boo xam ne un président nouvellement élu mu am alternance bu bees ñëpp ànd ak moom man ma dem ànd ak moom ba falu ma dem wuti député sama bopp kenn du ma may député pourtant plus forest boobu ngay wax <laughs> nit am na plus forest ñu mois mu am pour cent. ti booba kenn du saboté moom plus forestal ti booba amatul élection présidentielle c'était en 2017 il y avait pas d'élection présidentielle année boobu. waaw mais ci nga dem élection mais ma y avait 47 listes dañu saboté élection yi. yaa ngi rappelé élection yooyu. waaw 47 listes. waaw mais ci nga dem élection waaw teg boo déglu am na lu tax. ah loolu moo tax. parce que gënoon maa xam lu tax dawoo dem élection. loolu la xam saa ma li li li muy li muy kii. dama ne la pour les ay affaires dem élection ak am structure boo amatoon structure en 2012 du ma am plus forest devant l'appareil Benno Sénégal lépp lay broyé. mais man xam lan lay wax. am dans chaque département ay représentants yu ma yu ma yu ma. sab un c'est une structure xam nga man lan lay wax. loo xam sa structure. xam xam ñi ma nekkal Fatick ñi ma nekkal Kaolack ñi ma nekkal parti yi nga xam ne en fait les grosses pointures yi nga xam ne. affaire am na euh, structure. oui. ki responsable APR Dakar. ma ne APR am na structure. ki responsable APR Dakar. Euh, pa Khalifa Sall. c'est ku non kuy kuy responsable APR Dakar. kan mooy responsable. APR Dakar APR Dakar amul benn responsable. xam nga kon ñoom si réew mi xam nga dama ne kuy responsable. Ah, de Dakar Amadou Ba mu ngi parcelle. Karim Fofana mu ngi Karim Fofana mu ngi. non waxuma Karim Fofana point yooyu la nekk dama ni. Euh, Abdoulaye mu ngi loolu am naa ko ma fu ne am na ah. ñoom Assane Thiel Fall bi boobu. Ah. ñoom Amadou Diallo ji da caaree kaw ah fu ne am naa fay samay nit. yu gën a sori Karim Sall mu ngi mbaaw. waaw oh, damay nag qui est responsable de la paire. à Dakar waaw mais loolu non maître le débat c'est pas. ah yaa ngi structuré ba ma ne la kenn gënu ma ah? kii moo dirigé affaire Dakar. mais affaire Dakar dafay am responsable selon les élections. ah chaque élection am responsable. oui parti de donc. dañuy dégg coordonnateur dañuy parti du nekk ba am élection mu structuré nan kii moo jiite déedéet. da ngay am structure ay fédération ay section ay comité bien avant les élections donc loolu structuration mais doo bàyyi ba élection nga ne kii mooy jiite loolu structuration. maître man waxuma <laughs> structuration. je parle de grosses machines électorales. y' pas de grosses machines amu fi y' a grosse machine électorale kan par exemple kan. les grosses machines électorales kan euh, Benno Bokk Yaakaar Benno du parti bu euh, ci la bokk. coalition kon Benno euh, APR. ah APR consultation électorale la. ma ne APR. APR kay la bës dem élection moom kenn. non waxum déedéet. <laughs> man dem na élection man kenn. APR dem na élection. moom kenn. APR euh, euh, PASTEF euh, taxawu Dakar réew mi PDS ñii nii on ñii nii ñu bañ a jàll parrainage mooy surprise bi. kenn ci ñoom mos dem élection moom kenn. ah d' accord kii bu ma waxee parti boo man du ma wax parti boo man je parle des grosses parti qui n'existe pas amuloo droit tudd ko amuloo droit tudd ko un parti dissous interdit de fonctionnement boo ko tudd fii du ma ko tudd yéen presse bi rek nit day dee ñu suul ko légalement ngeen di bokk suliwaat kooku c'est une violation des décisions de justice ou bien des décisions administratives mu wax parti boo xam ne il n'existe plus du dëgg alors li ma xam mooy parti yooyu nga wax yëpp gënuñu ma structuré te ñoom kenn ñëwul dem part élection moom kenn ci ñoom kenn ci ñoom benn bokk yaakaar trois cent parti la d'accord bi muy génn man kenn di wuti député dama wuti am plus forest kenn kenn ci ñoom ñu ngadd yi nga wax ngadd supposé ngadd kenn ci ñoom ñëwul dem moom kenn ba léegi nii ba léegi nii AFP ñëwul demal boppam APR ñëwul demal boppam demal boppam dañu dañu ñu rek nag dajale. d'accord alors on en revient au. man rek maa ñemee dama sama bopp. on en revient ñoom kenn mënu ci impressionné ndax ñoo bokk bennoo ma ñemee dem ci ñoom ñoo muñ dem kenn ci ñoom demul kenn. on en revient on au parrainage. on en revient au parrainage bu vous retrouvez avec quarante mille et quelques euh, admis au deux. au quarante trois mille euh, bu njëkk bi admis au second tour. nga amat quarante trois mille vous étiez à ça. d'y arriver. Euh, est-ce que yow da ngay rejoindre le collectif qui contexte la régularité euh, des opérations de contrôle des des, des parrainages. Euh, non. lu tax. d'abord moi je veux pas être ridicule c'est-à-dire ci monde entier bi yëpp Sénégal moo ma sa élection loterie nationale moo ma sa dem élection loterie mooy mooy def élection loterie mhm. élection c'est tellement sérieux que war am loterie yow am nga droit wuti parrainage am nga droit wuti parrainage bi ordre de passage loolu mais yéen a ci d'accord. ci euh, ci ci comme d'accord def recours. ah d'accord. déggoo ma de. bu kenn def recours parce que man xamuluma gëm mooy ñun ñëpp dañoo nangu musiba dañoo nangu caaxaan élection caaxaan élection loterie nationale élection loterie amul ci monde bi yëpp sauf Sénégal mais yow mais mu ne est mën a nangu nga dem ba Tambacounda comme man dem Vélingara dem Kédougou dem koldaa dem ay Diaobé dem ay Nioro dem ay Mbégué maa ngi nuyu Dame Sow di nuyu Kaffrine ñoom Adama si ci li ñu def ci parrainage. yéen ah? a d'accord ci li ma def Nioro ñoom Assane Banka ah? li li ñu def Cheikhou Sadou Ba Niass li ñu def Kaolack ñun li ñu def ba Mbela Kajaw ba Ndiobène Talen ba Diofior ba Diourbel ba Touba amul fu ma demul Sénégal xoolal ñu am nañ droit def seen parrainage ñëw xëy na keneen xamu nu ñu def am parrainage yooyu peut-être ñu ne yow mi demoon wëri parrainage. nit ñëw na jënd ay parrainage xëy na moom moo la jiitu te dafa fay ay millions pour am parrainage fay ay ñu bëri ay millions lañ fay pour am parrainage. ah gars dañu jënd parrainage ñu bëri. ah oui yi nga ànd titre fii. ñu bëri ah. ñu jënd parrainage. xam ñu jënd parrainage du ma leen tudd waaye xam bopp. ci opposition bi ci. waay waay ñi soppeekoo ci nguur gi. non nguur gi ci nguur gi la xam ne ma lay waxal xam nañ seen bopp ñu dem di négocier di jënd daa di yore génne million cinq million fii dix million fii wutale ay parrainage xamante ne suñ biir am nañu amul ñaari nit man nee naa wane ay image xoolal tegal ma samay kii sama passage nga xool buñ ko mën a teg man tooguma rek di yónnee naan jaay leen ma parrainage après nga mieux placé daal di jàll ki demoon dox ay milliers de kilomètres am ay parrainage yu valable nga dem corrompre ñooñu la joxoon parrainage am ñu jox la yow même parrainage ah nga yow yow teg ko fi daal di jàll loolu loolu lu ndam la yow boo jàllee <laughs> man damay ree dangay ngay wala affaire bi ñu ne bu doon man aw ma nombre laaj. mais li ngay wax amoo ci benn preuve aussi. dama ci am preuve bi samay militant ñoo ñëw am ñu ma nettali ñi may diw kat diw kat dégg naa joxe na nangama million léegi gars yi parrainé nañ ko wala yóbbul nañ ko parrainage diw kat ña la parrainé woon am na ñoo xam ne dem na jaayaat ay parrainage keneen. ma ne ah bon ma jokkee ci amee firnde moo tax gis naa ci ay parrainage ñàkk jom ay parrainage euh, yoo xam ni boo jàllee sax waroo sax am wala waroo sax kontaan ndax da nga xam da ngaa jënd ay parrainage jàmbur am na ci ay dix millions ay cinq millions ay vingt millions pour am parenage parce que xëy na li nga yore du jeex xëy na man li ma yore xaw ma dina jeex xaw ma du jeex ne man boo yore ay milliards du ma ko def mais maître euh, yéen ci dialogue national bi yéen yéen a d'accord euh, ñu assouplir les conditions du parrainage. man mosuma ci d'accord. ah dama woon ci dialogue bi. dama woon ci dialogue bi benn dañu taalu ñuy dem man taalu ñu ma woon. waaw mais vous étiez structure. waaw mais vous étiez d'accord avec le dialogue. je n'étais pas d'accord je n'étais d'accord avec le dialogue moo tax da ma ne xëy waa dañuy ñëpp bàyyi ñu bokk ñu wii ay ay pexe. mais mais mais boo leen defee consensus boo leen defee consensus ngeen nangu dara. buñ ko appliquer kay. waroo wax ne. ma dañoo nangu caaxaan. non li ma li ma nanguwul yàgg naa ko wax man parrainage d'accord ma ci la parrainage ni ñu defee baaxul. parrainage bu amul woon musiba ñeel ñu xool en droit wax égalité. parrainage bu amul woon musiba mais ni mu amee moo baaxul yow mën nga nangu parrainage loterie nationale yow nga def wuti parrainage ba Kédougou ñu parrainé la. nii yónnee fa 10 millions ñu parrainé ko bu jiitu la jàll yow nga yow nga toog. non mais man est-ce xel mën na ko nangu. waa mais. du ma dugloo quelque part c' est injuste mais. non non c' est même euh, inacceptable bu ñu bu ñu inspiré woo de ba ñu demee conseil constitutionnel euh, di rang Aminata Touré ñu jël ko foofu en en en en tenaille euh, Malick Gakou affaire yi na mu demee pëccoxo ils ont peut-être les gens du conseil ils ont appris de leurs erreurs après politique yi nangu ñoom ñu mettre en œuvre. j'ai pas dit ça. hors ah. sujet nga wax man dama di la. le fait que ma dem ban ba Kédougou am fa ay parrainage dem ba Kolda ñu na ma nit jaar ci ginnaaw yónnee xaalis ñu ne ko. mu jiitu la ci ordre mu ñu ñu tiiree mu jàll yow nga toog est-ce que loolu c'est juste la wax man waxuma la ay pucceekoo ay conseil constitutionnel. mais mais pour en revenir xel moo mënul nangu ñu ne dem la wuti parrainage nga wuti ba am ba téye nit ñëw jënd moom la nga amoon ñëw jiitu la gagné nga toog te moom demul fenn fii la toog Dakar. mais pour en revenir nga ñëwoon ci ñi ñi ñi am parrainage des élus locaux ñooñu amuñu problème ñi am député mais pour pourquoi doublon amul ci député doublon amul ci ci les élus locaux. mais les maires mënul am. comme pourquoi léegi léegi benn benn parrainage bi gën a ngay wër pour am ko nga nga nekk en danger ndax mën na am dublo ah mais ya a y' a y' a y' a inégalité. un parti bu concourir. au une rupture de l'égalité demain donc. parti bu concourir au suffrage ba am député ba mu am élu locaux mais écoute euh, mu am yenn avantages yi c'est normal. non non non dafa ni. y' a y' a non non non non non non élection présidentielle bu amee bu amee élection bu amee amatul ko ko ko ëppale la preuve Ablaye Wade <laughs> Macky Sall dañuy ëppale ko après daane ko kon xamuñ ko ëppale ëllëg day am une nouvelle légitimité électorale. déglu ma de élection bu amee dañuy dañuy basé waat carte yi kenn xamul ëpp woon ngay député taxul nga ëppale ay nit ci réew mi xëy na sa temps jeex na sa air jeex na war nañ la remplacer ëllëg xëy na da ngay demaat concourir Hollande François Hollande président France nekk na président ñu waaj def élection mu ne xam ne bu demee du ñu am sax 5 pour cent Macron mi doon ancien ministre de l' économie Duma Manuel premier ministre am kon du affaire yaa fi nekkoon am doon da ngeen avantage kon François Hollande day toogaat. bu leen wax loolu bàyyi leen xel yooyu élection bu amee dañuy rebot xolal dañuy passer la carte kenn xamul ko ëppale kenn xamul day am nouvelle majorité mën na am pourquoi nga ne kon ñii la ñu war a faral faral amul ci élection. donc da nga contre le parrainage surtout euh, parlementaire le parrainage des élus euh, locaux da nga contre mode de parrainage contre ko mais bu ñu ko defee noonu. ñu institué comme yooyu amul doublon. citoyen bu ñëw am parrainage citoyen ñu xool candidature baax. numéro carte d'identité numéro carte d'identité. mais un citoyen ne peut pas loolu kay loi bi moo ko. un citoyen ne peut pas loi bi loi bi day ne ku parrainé ñu xool carte bu baax xam nga baax na da nga ko ko wuti war ko annulé naan keneen am na ko xëy na ki def faute mooy ki def parrainé ñaari nit kooku loi bi daf ko sanctionné. te soo dégg jàpp nañ kenn koo xam ni parrainé na ñaari candidat pourtant loolu délit la délit la ku parrainé ñaari dañu war jàpp tëj la. mais dañuy bàyyi kii war a jàpp tëj la yow nga nekk victime yow mi ñu paree na deux fois yow mi yow mi yow mi paree na yàgg keneen. kon yow victime ki yëguloo tidduloo. yow mais bien sûr. mais dafa am ku jënd say parrainage. mais yow am na xaw ma mais li ma wër mooy doublon am na te man xaw ma nu ñu ba am doublon man boo demee ay ay dànke suuf mi ginnaaw ma leen odaar dem Fass Maam Baba ginnaaw ma leen odaar dem Njóobeen Taaleen dem Njarni ginnaaw Mbela Kajaw dem ay Fimela àll boobu fu dee déggu naa fa. fi naa du àll de. ay ay ñaaxar ay pata ay pataar. foofu du àll de foofu dee dugg naa fa. Ah. léegi ñu àll bi yëpp ville lañ communalisation universelle Macky Sall ko fay di li ko amatul ku nekk àll bi léegi ville nga nekk waaw mais nag demeewul euh, li ba léegi man ma la mën a mooy man en tant que juriste j'ai vraiment choqué hmm. par l'injustice l'inégalité des armes mooy yow boo amee député amoo doublon treize boo ko déposé amul problème yow boo amee cent vingt euh, élus locaux maire président conseil départemental amul problème mais yow mu bi gën a métti mooy nga fexe ba am quarante quatre mille et poussière ñeent fukki junni waxuma ñeent junni de ñeent fukki junni ak ñeent ci ñeent fukki junni bëri na de ñeent nga fexe ba am ko ñu ne la bonul de ñu ne am na ko am li nga am yow yëgoo tinoo. mais ce sont les règles du jeu te baaxul. règles yi baaxul may mun naa man d'accord gërëm ba avocat nga règle du jeu. règles yi ñoo mauvaise les règles sont injustes. les règles sont absurdes. les règles sont inacceptables. parce que mënu ma li ma la wax dégg ko da nga ko dégg. non dégg naa li nga wax. da nga dem wuti am sàccoo ko nit ñëw sàcc wala mu jënd ñeek laa jiitu jàll. muy muy élection loterie nationale l' élection est tellement sérieuse l' élection de chef d' état. que waruñu am loterie nationale ci élection. xam nga li ngay wax. te ni autant fu leen terminer foofu dama ne bu ñu mayee bu fekkee ne amul doublon ci député amul doublon ci ay maire des élus locaux mais fait aussi même bu ñu la parrainé dañu xam ni yow doonoo ci dara mais ñee amuñ benn risque benn danger yow ngay wër di wër di wut di wut ba am quarante quatre mille et quelques ñu ne la ay eh, attention ah, am na dix mille yoo xam ne. mais mais mais keneen am na ko avancé un peu nga yow. li ngay kaas. c'est inacceptable loolu amee na Aminata Touré. c'est inacceptable Abdourahmane Diouf euh, professeur Mary Teuw ñaan ñoo loolu la ñëpp di kaas. pourquoi doo def jonction ci collectif bi euh, peut-être que en mettant la pression euh, vous pouvez obtenir quelque chose dem nañ seeti euh, les chancelleries occidentales adressé nañ. boo man euh, li ma gëm mooy déposé nañu ay recours. li ma gëm mooy nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. la règle ne moo di tur la jàng la fac de droit mooy boo sa yëfu dof boo ko defee ba pare mënoo ko jooyee fenn yaa ko teg sa bopp ñun ñoo dem élection takku suñu bopp ñun ñëpp xam ne lii mooy les règles du jeu yaa ngi les règles du jeu elles sont mauvaises elles sont injustes les règles du jeu elles sont inacceptables de la loterie nationale élection présidentielle may mu ne c'est trop sérieux pour ñu def loterie donc il faut tiire yow jàpp nga ne da ngay tirer les conséquences de ton choix moo tax doo def recours. man je m'en veux. doo def recours. d'avoir participé à cette élection. doo def recours je pensais je savais que mon heure venue pour diriger le Sénégal tax ma bokk mais bi ma gisee réellement ni mu la woo ma ne lii lii lu ko gën a nekk lu lu lu lu doy waar lu ñàkk fayda loo xam ne loterie nationale la pour nga toog la nga dem ndax may mun a jiitu na la yow boo ñëwee doublon nga. te yaa wuti parenage ba ginnaaw ma lem odaar nga génn ñu jox ma ñu jox parrainage bi may mun a may mun a ñëw ndax xaalis la fay ñu defal ko parrainage mu ñëw ñu ne may mun a jàll na ñu ne ngand la fu nekkee ngand dafa tricher oui mais mais mais mais. am na ñu am na ñoo xam dañuy tricher pour am parrainage. mais mais maître nag il faut respecter le travail abattu par ces gens là qui ont passé le cap du parrainage. je respecte beaucoup ces gens là mais bul bul bul jaxase ak ñoom. bul bul bul mais dama xam li woon ci terrain bi. mais bul sotti on était 93 sur le terrain. ce sont les règles du jeu xamante nañ ah. ce sont les règles du jeu et. les règles les règles les règles mooy numbelaan ku ku jot sa borom pàdd mu daanu est ce que loolu baax na les règles de numbelaan est ce que baax na. parce que ah, li nga nekk di compte dafa am un candidat. euh, en l'occurrence Boubacar Camara oui. qui alerte alerté en disant que bu ñu demee élection ci condition yi euh, baaxul ci réew mi on n'est pas prêt ouais. et il avait préconisé un report de la présidentielle à l'époque ñëpp song ko mu mel ni mu mel ni mais lu mu doon lu mu doon ŋàññ ci processus conclusion bee baaxul waaw mais li mu doon ŋàññ ci processus mu mel ni euh, le faits lui donnent raison non il n'a pas raison mënoon na ne nañ changer assemblée ni ñu defee dugal dugal ay dix députés ay ñu ne ñu ne ku dem am say say parrainage amul amul ay doublon ku am parrainage comme jëpp da nga ko wuti am ko comme député da nga wuti treize député woon dog ko il faut être juste selon les parrainages bii député bi les élus locaux bii par citoyen citoyen bu ñëwee nga ne ah yow yéen citoyen yi kat am na ko am li nga am te député moom mënu mënu ko doublé kon mënu na dinañ changer texte yi mais pourquoi ñu renvoyer élection yi pourquoi report des élections ah parce que bu ñu changé mais on a introduit les les treize députés là sans ñu reporter élection yi ces députés yàggul di assemblée ko wate yàggul dara <laughs> bi ñu watee yi lépp mu jeex benn yi lépp réglé nice sans ñu reporter ko léegi bu ñu ko reporter lu ñu proposé nit ñi loolu la ñu def d' accord ma ci benn report des élections la président Macky Sall maa ngi koy félicité même ci BRT bi rafet na terre bi li mu liggéey Sénégal baax na bu kenn yàq deram day dem day dem na dem ñu ñaanal ko ndax liggéey na bi lu benn président mosul liggéey na dem liggéey ba rafet na lu ne day jeex nguur yàlla rek moo dul jeex dañ koy ñaanal yàlla suturaal ko ndax dem na fi lu rafet mais nag quant à yokkaat mënul nekk na ñu leen ñëw ma je pense que maa ñëw remplacer sama xarit parce que ni boo gisee li ma la woon ka teg ko ci Sénégal yëpp ñu di ma teeru fu ma dem xam nga dama doon ree dama ne ci àll bi dëgg naan waaye diw dañ ko tere mu dem dañ ko gazé ci àll bi ma ne man de du ma xam nga lu tax hmm. ñaa noonu da nga jege pouvoir bi ma a déet dama def un pari mooy man nekku ba campagne électorale du ma jot dajal ay oto ay sonorisation bare circulation bi ba ambulance di ñëw du mën a jàll population yi xamuñu la mais da bëgg ñu xam la ndax xamu xañ xam kenn foo jógee boo ñëwee ci àll bi taxi musique indi farweere oto coow li bëri ñu ne leen dégagé nga bañ a lakk dóor ay lacrymogène ndax tali bi moomu loo ko nit ñi dañu war a jàll ñi feebar dañu war a jàll ñi waaj a dee dañu war a jàll ambulance dañu war a jàll ñi voyagé dañu yàkk am ay rendez-vous nga indi see fukki oto juróom teg ko ci tali bi teg sa musique ci benn dëkk pour nit ñi xam la ñu gazé la nga able man dama ne benn oto laa yóbbu mooy mën naa yóbbu fukki oto de man ne benn oto laa yóbbu dama yóbbu garde corps billaahi wallaahi taala da nga image aw ma garde corps bu yóbbaale aw ma. déglu ma déglu la ko diffuser. j'ai fait un pari. Mhm. beneen lu tax lu tax ma def parce que la l'élection présidentielle c'est la rencontre entre un homme et son peuple. du dëgg mën naa def vers le peuple xool nu ñu may nu teeroo man kenn ci ñun bu ma dee cëpp ci dëkk bi ñu may teeroo bu ma jëwee xam nga dama dama laaj tali bi parce que euh, damay occupé tali bi mais boo ma ñëwee fu ñu may teeroo day fee dell dell dell. Ah. kon kenn du ma lakk lacrymogène. Modou wan ñu image yi. te boo wanee image yi j'étais partout accueilli comme un roi. nga hmm. teg image yi dégg son yi ni ñu may waxee man nga buur yaay président fii Nioro la. CCA Nioro. si maa fi jógee maa ngi jógee Kolda ci ay vingt trois heures yi ñu ne ñu ma sonn mais Maguette day toog di ma nekk jot fiche de parrainage rek. pour mu distribuer leen fiche de parrainage nga xam nit ñi nañ nañ ma dafa feesoon daan daan ba may ñëw kon li mu guddee. xanaa nañu dañoo dispersé wu. non nit ñaa ngi fi ba de personnes yu des di ba hmm, moom fii moom y avait du parce que. fële dama guddee trop jógee Kolda yoon bi bon. Ah. bala ngay ci bag bi. ma tardé trop ñu bëri def defar ay reer ak yooyu xoolal bi may see Kaffrine hmm. yore fiche ba téye nii fiche laa nii fiche parrainage di sëñ bi bay dox. waaw léegi maître. léegi dañu wane Kaolack nga ko. ah. après bu la neexee ñu wane. waaw di dinañ ko wane. maître euh, xool xool yow gis yi ma topp. ah yow ku la waxoon lii bu ma dem la ñu may toppee da ko gëm. du ma que dama am man kay nee naa la dama am. dama structuré mbooloo yi di mu nekk fu ma dem toj ko jàll. man kay nee naa la dama am suuf mais maître léegi recalé nañ la donc yow pare nga ci. waaw mais doo def benn voie de recours. recours pour la dara yow pare les règles du jeu en droit. Hmm. mooy mooy boo amee doublon ñu éliminé la. te xam moom doublon sax ndax am na man xaw ma sax fu jëlee doublon yi. Hmm. parce que xoolal Boubacar Kamara mooy numéro un man may numéro sept. ci diggante bi ñu ne ma am nga huit mille cinq cent doublon. Hmm. kon kon kon Boubacar Kamara man ma nuróo nañu huit mille cinq cent. ñu ne ma noonu temps de fee. sur le fichier électoral ñu ñu tëbbal ma ci six mille et quelques te ñooñu am nañ carte d'électeur ma xaw ma pourquoi ñu teq ma quatorze mille premier tour bi te j'avais une réserve de onze mille cent parce que au lieu de quarante quatre mille j'avais déposé cinquante cinq mille cinq cent soixante dix kon yow ma ci quarante quatre mille yi ma laajoon dama dem ba cinquante cinq mille juróom fukki junne ak juróomi junne ak juróom-ñaar cinquante cinq mille juróom fukki junne nit la dugal. juróom fukki junne waaw waaw mais dama bëgg a xam ndax yow. waaye bu dee xam juróom fukki junne. Euh, doo def benn. voie de recours man mi amul di dugal ko. waaw d'accord mais doo def <laughs> benn recours euh, pare nga ci. parce que dama dama vous ne ferez rus am gàcce. ah ndax bu ñu laaj réew. ñu dina éliminer ci lii yow ki la pare na pare na diw xam nga pare naa la yow rek mais am naa ko. am nga treize député man am naa am naa quarante quatre mille. waaw mais mataloo tamit. am matal naa ba ëppale. <laughs> ah soixante quatre mille laa la woon. <laughs> premier tour bi cinquante cinq mille matal naa ba dañ ma ne kay da am ay doublons huit mille cinq cent doublons ak six mille et quelques non identifiés sur le fichier ñu boole ko ba quatorze mille. waaw mais on n'a pas rempli les critères. déggoo ma moo tax ñu recalé la. ban critère critère mooy bu amee doublon dégg nga. loolu moo tax war nañu élection war nañu ah, règle du jeu bi la règle baaxul dama man d'accord naa ni on m'a éliminé selon de règles injustes mais j'ai dû. mais mais mais tontu je ne me sens pas éliminé pour man jàll naa bu yàgg. pour yow ma laa joxe naa ko. waaw mais mais mais mais dama nga tontu dafoo recours rejoindre benn collectif pare nga ci. xam nga en droit man mënuma nekk juriste topp ay non juriste topp seen sentiment. yow yaa wax les règles du jeu vous avez raison les règles ont été mauvaises waruñu ko woon a nangu doublon moo boobu sax waruñu ko woon a nangu ki def doublon lañu war a condamné nga xamoo ci dara yow ki ki la pare na pare na keneen yow loo ci mën a xam doo doo doo pour xam ko léegi kooku tere laa dem élection ndax fay nañ ko xaalis mu trahir dem dem pare pare na keneen. population yoo xam ne ñuy bëri xaalis di gëm c'est la la l'argent qui marche xam nga Sénégal yi nga baal ma ñu ci bëri am na nag ñu ñu am seen ngor am jom mais ñu bëri dañu gëm xaalis le jeu argent donc ñi nga xam ne ñi xam ne xam nañ loolu te amuñu mbooloo amuñu nit comme El Hadj Diouf amuñu structure comme El Hadj Diouf mënuñ dem fee Kaffrine taj ko dem ñooro dem Tambacounda dem Kolda xam nañu def toog di yónnee ay 10 millions de def seen i émissaire wala di yónnee wara yi daw xam ma xaw ma VF la xaw ma bu ne bu nañu envoyé yooyu yooyu yooyu nga nga am rek parrainage yu bëri yoo xam ne keneen amoon na ko moom nekkoon sur le terrain après ñu ne jàll nga ñu lay félicité yow est-ce que waruloo sax rus doo am loolu gàcce la. waaw léegi gàcce la. waaw léegi maître pare nga ci mais lan mooy doon sa sa destination finale da ngay da ngay delluwaat Benno Bokk Yaakaar da ngay dem jàppale opposition bi lan lan lan nga. d'abord man masuma génn Benno. Mm. ndax dina ko ba ñuy créé Benno ñi ñi ñooy candidat Benno nekk yoon Benno. kon Benno ba ngay créé mooy entre les deux tours en 2012 ma nekk Benno Siggil Sénégal ànd ak Moustapha Niasse ak ñoom Katy Cissé Wane ak ñoom El Hadj Momar Samb ñoom Moussa Touré. ñoom dans ce yàlla ko yàlla yërëm am lay bàcc li ñoo ñëpp benn sigli Sénégal yi dekkoon ak Abdou Latif Coulibaly ak Penda Mbow Sall ak ñoom Mahmoud Saleh ñoom Seydou Guèye euh, ñooñu ñoo formé woon ak Jean Paul Diaz ñooñu ànd ak Macky Sall def Macky 2012 ak ñoom Moussa Diakhaté après benn tanoor ñëw benn tanoor boo àndoon ak Landing Savané ak Ali Aïdar dafa nekk sa ministre premier gouvernement Macky Sall dara da ko proposé au ministre réew mi ñëw Idrissa Seck tax mu amoon ay ministre aussi au départ Omar Gueye ak Pape Diouf idi bi ñu demee député assemblée ñoom ñoo ñoom ca la ñoom ki nekkee député ñoom ñoom bokkum le jeune bokkum. ñoom Thierno bokkum ñoom Barthélémy fekk ma demal sama bopp ci la ñoom ñu def ñoom ñoom làng def groupe loolu mooy benn si benn bokk yaakaar ci la bokk mais ba ñu wut député dama demal soo bopp donc man candidat benn laa un deux président Macky Sall suma xarit moom moo dem tànn Abdou Ba bu ko tànnee li ma ko wax mooy man de wal fal naa la 2012 ànd ak yow falaa la 2019 loolu moo tax présenté wu ma 2019 2012 Moustapha Niass moo tax wax naa la li li ma wax ba def ko 2019 ma ne waaw comme suma xarit falu na nañ ko falaat am na droit deux mandats. moo tax jiw ma sax présenté dama ko jàppale ci campagne bi on a fait le tour du Sénégal ba bi muy daw Fatick wàcc oto bi maa topp taxaw ci kaw moom muy daw ci suuf wuti stade ba am na wala amul en deux mille dix neuf. te mm. di daw wàcc oto bi di daw. ba mm. neen dafa jàpp état yow ñoo ànd maa ngi nii ànd ñoom Askia Touré ñoo ànd maa ngi jaaw ak jiwoon Mimi Touré foofu ñi ñoo àndoon ak Souleymane Jules Diop du dëgg. léegi dama ni la. Mm-hmm. man masuma génn bennoo mais actuellement nii maa ngi xoolaat suma position. c'est-à-dire. c'est-à-dire néew ma kenn yow lay àndal. ah yow nga ne mosoo génn bennoo. ma foog ne da ngaa da ngay génn waay bennoo mais benn koo moom. waaw mais Benno a un candidat. c'est moi qui est Amadou Ba. c'est moi je suis le plus légitime. comment ça tu es le plus. mais man maa maa nekk membre fondateur de Benno. waaw mais vous n'êtes pas choisi. ah kon Macky Sall lu mu defee ki gën a légitime ah. mooy. ki Benno tànn non mooy ki Benno tànn. Benno tànn Macky kese déedéet. Macky dafa concerté wu avec tous les partis de Benno. waaw parti Benno yëpp. d'accord ci choix wu Amadou Ba d'ailleurs il a été investi par l'ensemble des partis de Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba a été investi par Benno d'accord na. waaw donc moom moo moom moo am légitimité. Benno la bokk waaw Benno. benn cadre fa am mooy Macky Sall. ma waaw d'accord non. la preuve man kenn dafa nekk ak ay ay ñoom Moustapha Niass ay nawleem. waaw ak man waaw man Moustapha ne non. Euh, déglu ma moom moo dirigé opération yi. man dirigé sama opération man man du ma recevoir. mais à partir man Mathieu xam nga man chef de parti la Moustapha du ma recevoir ndax ñoo yem ñoo yem grade. benn c'est des c'est des partis coalisés alors que du recevoir kenn du chef de parti nii Amadou Ba ni Aly Ngouille Ndiaye. ni Boun Abdallah Dionne ni Mame Boye Diao ñoom ils sont de l'APR ay bokkoon. waaw kon mën na leen recevoir dans ce cadre là man may chef de nawle mu ne ma recevoir pour ma recevoir looy rek. man kay waxuma ne ñas de la waxuma ñas de la recevoir dama ne. Macky Sall dafa concerté ak ay nawle ñoom Moussa Fañe ak ñooñu dama ne. waaw bi ñu toogee salle des banquets xanaa dégg nga ñu ne ci l' observateur benn voix discordante dama fa am maanaam El Hadj moo ne. il va se présenter xanaa loolu vous mm-hmm. parce que une coalition c'est parti amul chef c'est des partis dégâts dignité mais par contre dans l'esprit de beaucoup d'éléments de Benno lépp lu Macky décidé dañ koy war a topp alors que ñu maa bëgg Macky de gënuñu maa fonk yi mais ñu ci bëri dañ fa dañoo nekk taalibe Macky Sall ñu ci bëri buñ tarbiwul li Macky bëgg moo tax ñoom ñoom ñu ànd ci li Macky bëgg ah man ñu yuuxoo ma ci un jour dañu ma yuuxoo dégg nga loolu biir palais war a yëgoon loolu. émission bu ma def ak waa waa TFM ak ñoom Serigne Dia mu ne ma tax ñu la yuuxoo. waaw mais yow ma ko yuuxoo bi ko waral mooy ci choix wu bennoo bi. non dem nga rëkkale nañu la nga ne da ngay delluwaat benn. man maa dama dellu benn. <laughs> waxuma loolu. Eh, dama ne ànd kuma kenn. ah mais bennoo mu kenn ëppale wu ma ci bu ba su ma génn bennoo. léegi lan mooy sa avenir. si làng bi mais mais. Amadou Ba n'est pas le seul candidat de Benno. Moi, je suis candidat de Benno aussi. a, moi, vous, êtes candidat recalé. recalé par qui. ah recalé par le parrainage au conseil constitutionnel. waaye ci Benno la bul tëb di so du desal pas du coq biir Benno ki recalé wu ma. non non Benno kay xam naa ne boo bëggee Benno da ngay adhéré adhéré librement àndandoo dóorandoo mais diktat amu par contre. c'est vrai ñi ci ëpp ñëpp dañu nangu diktat ku ci nekk ñu ci bëri ñu yuuxoo ba président toog ma ne président daanu nga Amadou Ba de waaye man je maintiens ma candidature ñu yuuxoo ma ma ne leen yéen yéen ñàkk jom yéen ba ngeen yuuxoo <laughs> parce que ngi toog ak président dialogue ma président mooy xool peut-être muy sataan ma ne ko président bu tàngee ba tàng maa koy défendre réew mi bu tàkkee bàyyi taxaw défendre réew mi président mooy suma xarit xam ngeen ko mën naa koy defaan yéen génne pat tëju seen kër yi na nëbbatu ba jël ay risque bañ taal sama kër mais tey comme yéen rek quatre murs nekk lii biir palais salle des banquets yéen dialogue président parce que bëgg na Amadou Ba nekk candidat man ma ne ko d' accord ma ci man ne candidat laa ngeen ne ma yuuxu. waaw mais d' accord est ce loolu jom la déglu ma ñi may yuuxoo te kenn mësul la gis ci combat bi. waaw naa ma ne nii ay naafeq ngeen demande président. président ne El Hadj Diouf a d' accord dem nga recalé nañu la. bu nga ne vous êtes toujours membre de Benno si vous êtes toujours membre de Benno et puis est-ce que waa nanguwaat. d'abord man est-ce nanguwaat. man est-ce que waa Benno nanguwaat parce que en refusant de reconnaître le candidat de Benno da poser un acte. est euh, euh, dafa poser un problème de discipline. quelle discipline. de discipline. Euh, coalition dafa am fait discipline. waaw déedéet coalition mu am affaire de discipline. waaw mais d'accord mais coalition bi am na nu muy doxee et coalition par exemple Yewwi mais ku mu neex nga dem coalition benn ku mu neex nga dem. waa léegi mais la preuve ñoom Aïda Mbodj présenté wu nañ. bu la benn c'est à voir eh, est-ce que Benno dina la accepté. Eh, coalition euh, maître may ma une petite précision suñu suñu page Facebook dafa am restriction euh, dañoo recevoir signalement suite à des vidéos euh, activités sportives yu ñu yu ñu dugal. donc page bi actuellement dafa am restriction euh, ñi ñuy seetaan nañ mun nañu dem euh, connecté wu ci suñu page euh, ci suñu page YouTube restriction bi nag dinañ ko vivre dix jours moo ci des et puis on va retrouver nu mu tudd l'intensité de nos capacités sur sur sur sur Facebook waa ma ne bu la bennoo bu ñu la daan bu ñu accepté xaw ma ndax bennoo sax dinañ nanguwaat jëlaat la. man maa ngi doon dama la doon la faale. man ànduma ñoom dellu ma ci ñoom bi dama leen dama res. waaw léegi topp toowuma leen. ñan nga naan boo dellu ci benno actuellement joxu ko ma kenn femelle. mon passé na s'est pas encore réuni pour tirer les enseignements xam nga ku ñu àndal. kon fu mu nekk nii. te ku ñuy àndal ku dee dañ koy teg ci lu leer. bien que temps ànd ñoo kenn du nekk nii. bien que temps membre de Benno euh, da ngay décider euh, décider guloo ndax da ngay rejoindre Benno et Amadou Ba. donc da ngay négocier. négo lu may ah da ngay négocier kay. damay négocier pour jël réew mi négocier ba kenn mais ku ñëw négocier man soit parti ngay négocier ak sama coalition bi ma àndaloon bu fekkee bëgg nañu ànd ak yow ñu ànd ak yow exclure benn kenn nag. waaw ku nekk opposition comme pouvoir. opposition comme pouvoir réew mi moo leen ñor réew ma ñor ñëpp la yéen a jàmm même opposition bu jël pouvoir nañ ko jël bu dee yow bu dee localité Sénégal. Karim Wade mën nga ànd ak moom. bu baax. ak li nga ak li fi ngeen jaar yéen. man maa taxaw pale ne président bàyyil sarak keroog dialogue journée du dialogue national da ko fàtte wala da nga fa yàgg gaaw da nga ko fàtte maa taxawoon maa ma fay mais plaidé naan bu El bàyyi na ko il fait son travail d' avocat bi ñu demee di ma boole ak Abdoulaye Wade li la wax la wax bu leen yéen xamu ne. daal les jeux sont Sénégal la ma ñor. ku fi wax lu leer pour réew mi jëm kanam wane fi jub jubal bëgg Sénégal bu jaral lu ne comme man dañuy taal sa kër ma ànd ak yow du ma ànd ak yambar boo xam ne day bëgg nag Sénégalais yi du ma ko nangu. ban yambar mooy bëgg kuy yambar mais dama ne ku fi wane xeex dóoroo fayoo ah, bëgg jël su ko xamu la yooyu yëpp da ngay wane programme bu leer teg ko fu leer expérience bu wóor bëgg Sénégalais yi bu wóor am fit. dialogue terroriste yi am fulla dialogue rebelle yi am fayda dialogue islamiste ku ko deful ànduma yow parce que man programme lay taxaw waxee yow d'abord la sécurité j'ai été le candidat de la sécurité et du progrès d'abord sécurité ce pays n'est pas en sécurité bu ñu nee ba taal kër avocat amul ci monde bi yëpp taal Auchan yi taal station yi di saaga général Moussa Fall di saaga président lu nañu di ko fi def ce pays là dañ ko war a tegaat ci yoon yar xale yi jàppale leen jox leen liggéey jox leen éducation et non bàyyi leen ci mbedd bi ñuy dee dugg ci géej gi di daanu c'est fini ça avec mon programme bi ma amoon ku ci sama programme ànd ak yow na nga passer des travailleurs comme ligue ligue démocratique mouvement du travail MPT mouvement pour le parti du travail fa lañ ma formé maa ngi nuyu sama professeur bi ma formé dugal ma LD. Famara ñoo bi Sarr man de man de ma def pronostic. professeur Famara ñoo bi Sarr. ma def pronostic. ci lan ma def pronostic. ci lan. permettre nga ma ma def pronostic ci sa destination finale. waaw. amul ba ngay àndal. loolu yàlla ko xam. moom ngay àndal. non déggoo ma li ma la wax kenn xamul kan lay àndal parce que parti bi mooy décidé man du ma décidé. waaw euh, nekk benn jinne mën nekk benn malaaka mais li ma def mooy kii yàlla tànn ni moom lay àndal moom lay àndal. je n'exclus personne ni un candidat de l'opposition ni un candidat du pouvoir non xam nga yow da nga am faiblesse su Macky Sall Macky bu la woowee léegi nga dem xanaa ko bi mu mel ne ànd ak euh, Amadou ah, Mané que man danaa fay plus de cent cinquante millions ci campagne parrainage fay trente millions euh, loolu du tuuti caisse de dépôt et de conciliation pour euh, caution préparer ay centaine de millions pour dem campagne électorale pour pour rek après ab seebul Macky Sall rek bu dee ànd diw maa ne moom non yow xamoo ma Macky Sall moo la gën a xam El Hadj Diouf autant je peux être très gentil très humain très généreux mais su les principes je ne badine pas. xam ah, nga maître 2012 xam nga Macky am ci moom mooy dafa bu xëy jotee ñun ñëpp ñëpp bàyyi ko abandonné ko ba des man ma ne suma xarit du ko bàyyi gars yi di ko saaga di ko attaqué di dóor ñi nommé ministre DG man ma suma nommé dara. ma ne ko baal naa la nomination ma toog di ko défendre di ko défendre nekk avocat am di ko défendre Sénégal yëpp sama teew. waaye dossier avocat état tamit neex na de. waaw d' accord neex na. waaw ah, neex na de ku la contraire sama ñaq la. ok avocat état bi dama soxla. avocat état mën naa meilleur avocat que moi yaa ngi wax ay ay ay ay ay ay temps Macky laa bëri dossier dossier bateau la Joola waa da jëlu ma woon. waaw mais li nga am dossier état ci nguuru Macky Sall amoo ko ci. nguuru mais li ma am nguuru Abdoulaye dama ëpp. non mais mais ay batalo Joola yooyu du suñu garaaw yooyu état état fu mu consulté wu partie civile yëpp. Euh, état benn yoon la nekk partie civile mooy mooy mooy bi ñu daje toj dëkk bi. waaw mais fépp foo état consulté wu yaa ngi avocat benn yoon rek état jël ma ci ci benn yoon. ah dans l'affaire Karim Wade nekkoo woon par euh, avocat de l'état. waaw loolu loolu loolu loolu boobu rek la woon. ak ban waaw dans l'affaire Karim Wade yaa ngi woon. avocat de l'état boobu rek la woon. ah parce que Khalifa Sall bi mu ñëwee dama bàyyi état bi fële loolu mooy avocat le charme de notre profession en tant qu'avocat de l'état ma ne eh, bii pas du mën a défendre de. ndax gëwuma waaw léegi maître Khalifa Sall lay défendre xoolal. Mhm. défendre Bamba Fall génne ko prison. défendre Barthélémy Diaz génne ko prison. défendre Khalifa Sall ñu ne ma doo ko défendre ma dem défendre ko noonu nee jaar nee na ñëw di ko défendre am na wala amul te bu daa boobu bi may avocat kon man dama bàyyi xaalisu état bi. maître revoilà Khalifa Sall mosuma fay ñaar dërëm. barke alxuraan mosuma teg sama loxo bi dërëm. non non non tu l'as Jean Paul Diaz Barthélémy dërëm sama loxo Euh, Bamba Fall mosuma dégg dërëm sama loxo barke alxuraan bu dee Kenya ma dégg un franc Mali fay ma ko. kenn fay ki ma bàyyi ay millions pour défendre état bi di leen défendre. alo maître loolu mooy le charme de notre profession xam nga c'est pas l'argent xam nga yow vous êtes un. c'est pas l'argent xam nga yow vous êtes un fin politique. 2012 euh, ñu bari jàppoon Macky Sall a été élu à la surprise générale nit ñi dañ doon euh, laam-laame ne le candidat de le futur président. du génn ci Ousmane Tanor Dieng ak Moustapha euh, Niass mm-hmm. et sax ndeysaan à l'époque euh, bi dans le bu opposition bi daan daje dañ doon xaw a euh, relégué Macky Sall au second plan di ko accuser naan c'est toobu toobu Ablaye Wade dugg na fii alors yow nga xool nga def une bonne lecture de la cartographie électorale nga dem tànn Moustapha Niass mm-hmm. malheureusement la mayonnaise napa napa n'a pas euh, ma jàpp ne deux mille deux mille euh, vingt quatre bi. yaa ngi nekk di liir la carte électorale. le vingt dinañu xam les candidatures définitives euh, retenues. au sérieux le vingt et un réunion voilà voilà boo demul ci Amadou Ba beneen coalition de partie bi fi ëpp bi nga xam ne tamit am na des chances. de se retrouver au second tour ou de gagner l'élection c'est la coalition formée autour de Bassirou Diomaye ah bon pourquoi. boo damul ci Amadou Ba. ñoom ñaar ñëpp ku ne doo dem non bu Bassirou Diomaye. coalition bi Amadou Ba ak bu Bassirou Diomaye a de fortes bu seen yooyu est-ce que du ñaari coalition yooyu électoralement parlant ñoo ñooñu. y a de fortes chances euh, ñu am dara. man euh, boo demul ci Amadou Ba foofu ngay dem. ci man d'abord d'abord euh, ci coalition Bassirou Diomaye Faye du ma tontu ci yooyu. lu tax doo tontu ci yooyu. ma tontu ci yooyu yooyu. loolu wax ju amal fula la. lu tax wax ju amul fula la wax day am fula parce que yow yow doo seetkat bu dee yow yaay selbe ndam wala keneen nga wax ma bu dee da nga ko amee don de gis gisaane ya yàlla après yow yaay nga sa bopp. je fais de l'analyse. non ñëpp ba ñu analysé. waaw ah. en dañ ne mënul génn Ancet Niass étonnant ba ñoom pendant six mois ñu xëccoo ku nekk le candidat de Benno et des assises nationales avec ñu Amadou Makhtar Mbow ñu Amadou euh, euh, Lamine Loum ñu ne kan ma nekk le candidat des assises ñuy voté entre Niass ak Tanor ba jubóowuñu ñu ne vote bi Niass moo gagné Tanor bañ créé Benno ak Tanor kenn sóoraalewul Macky Sall Macky Sall looloo lay wane kon bul ni diw mooy appareil bu mag wala moo bëri parti yu ànd ak moom. ah mais si ni mu leen bettee woon. waaw mais yow ci sa njort. mais Macky da nga jàppoon ne Niass était le bon candidat. Macky ni mu leen bettee woon. waaw ah. noonu laa ne la doon bettee ndax bi ma duggee comme Macky Macky wax na ma ni mu def ba falu moo ma ko expliqué noonu laa def ba kenn faale wu ma xoolal yow sa invité wu ma bëri nga ma invité nga ne ma Amadou Ba daa bëgg jël sa place vendredi doo ñëw tey ma ne la mënuma ñëw tey nga ne ma lundi ma ne ñëwuma lundi mais nga ne ma comme naa Amadou Ba mu bàyyi ma ne déet comme proposé nga ko te man nga njëkk a proposé may naa ko ne jàll vendredi. da nga ma mere kon. la mais da ma jëndee Amadou ma ma bàyyee la ko parce que da nga ma programmé cinq jours avant bàyyi balaa veille nga ne ma ah. Mehmet lan moo fi indi wax Amadou ba kat daa bëggoon a jàll. suba bëggoon mu invité ko ndax doo ko may suba ci nga ñëw tey tey tey ma ne ah man nag kenn du ma invité noonu ah xam naa man nag dignité nag nga ne ma kon tey nga ñëw lundi ma ne ah non. léegi kay doon damaa doon wax kay laay ñëwaat comme te ko Amadou nga ne ma non kon bàyyi ma Amadou bu toog yow nga ñëw ma ne xam ko Amadou rek bàyyi ko ñëw rek xam naa digg nga xaw ma nu ngeen nu mu demee noonu ba nga digg ko ko xaw ma mu demee mais na ñëw kay bi mu ñëwee sax la ko Macky Sall tànn il faut mu ñëw wax ak pour Macky pour assurer Macky Sall koy il faut une ne d'accord sama xarit la jox ko ko rek mu wax ma seetee ko la place te man nga yow xam nga ne man du ma fekk loolu dëgg la <laughs> du <laughs> ma dëgg la ba Amadou moom mooy Amadou ba jàll. waaw mais waaw mais xam nga. ca lañ ko tànnee d'ailleurs. waaw mais comme ñëwee rassuré xëy na wax wax yu leer. ca la nga parfois les may maa ko may. Ah, ah, ah, maa tax ko xëy na tax maa ko may parfois nous faisons xam nga euh, su ma kalee ak yow invitation. ma jékki-jékki comme ça on me dit que le PM il veut parler on est en train de choisir les candidats xam nga rek j'ai fait dans l'opportunisme non booba nag il n'est pas non non booba booba da nga ko favoriser booba da nga ko favoriser ah booba non favoriser Abdoulaye Daouda Diallo Abdoulaye Daouda ah, Diallo non ah, Amadou premier ministre il n'a parlé nulle part waxuma premier ministre dama ni qui veut parler dama ni ah non c'est une opportunité que je n'ai de tout le monde ah. booba Abdoulaye Daouda Diallo demoon na candidat moom Amadou Ba candidat la mais man xamoon Ba la ñuy tànn. waaw yow yàlla nga Aliou Ngouye Ndiaye di candidat la man xam foo mën yàlla nga Aliou Ngouye Ndiaye Boun Abdallah Dionne di candidat la Amadou Mame Diop président assemblée di candidat la Serigne Gueye Diop ni candidat la Awa Awa Diop Mbacké ni candidat la ñoo ñëpp candidat yu APR la ñu nga tànn ci léegi Amadou Ba dafa bëgg a wax nga ne El Hadj bi ma programme woon euh, vendredi ne nga tey le jeudi ko wane ko dañoo tey tey tey wala mu bàyyi ba lundi ma ne dama ci def benn. j'ai fait un calcul opportuniste. ma ne ñëwuma tey te ñëwuma lundi ndax dama am fula. non j'ai man mais man tamit j'assume que j'ai fait un calcul opportuniste waaw mais nga ni ma nga ni ma léegi bu fekkee noonu la bàyyi ba Amadou mu bàyyi ma ne ah man de xaw ma loo wax Amadou ba ba proposé ko sama bis duma la yàqal sa programme. man la wax ko mu ñëw man nag. non j'ai fait dans l'opportunisme rek waaw waaw yow opportuniste nga kon. non j'ai fait dans l'opportunisme ah professionnel ah opportuniste nga c'est-à-dire j'ai le PM mais man non non non non non non j'ai le PM j'ai le PM et je te propose un arrangement que tu n'as pas accepté. man du ma nangu mais c'est pas tous les jours que le PM candidat xam nga Niass ak Tanor bi ñu proposé Macky Sall mu bàyyi ñoom ñaar ñu jàll. waaw ah. Macky daa bañ moom fu la kenn du si la xam nga bul xeeb. non man xeebu ma. da ngay xeeb xal mu lakk sa dàgg. dañu xewal non xam naa da nga bëggoon solde compte c'est pas grave. c'est fait <laughs> a pas de problème non dama ni. dama ma léser dama la baal. non léser wu la. da nga choisir le candidat le candidat bi nga xam ni xëy na moo la gën a arrangé. déedéet man arrangé wu ma la. oui en oui en euh, l'époque. am Amadou Ba c'était du pain béni. et j'ai fait un choix opportuniste. man je le reconnais une ordure. non non non non on le prend l'ordure on la laisse là-bas. mais maître yow sama xarit nga bul sol de. waaw mais def nga loo xam ne depuis que ma nekk El Hadj ma nekk ma nekk seen politique bi. Euh. benn journaliste mosuma ko demee. dama man dama la woo dama la par politesse ma ne la maître man kat PM dafa bëgg a wax léegi dama bëggoon ma jël la tel jour nga ne ma non nga ne ma mënuloo. man xam naa ma jël la tey waaw man la ma jël la tey man du ma ko xiif télé la léegi ma jël la lundi man du ma ko xiif télé bañ na ma bu ko ñëwee tey tey wala lundi ma ne la ma ne la ñëwuma tey ma dem ci Astou Dione 2S voilà man kay wax ñëpp ma doon may ma may ba ba pare Astou laaj ma ma ne ko non da mënuma génn vendredi ñëw lundi mais bëgg ma ne dégg nga may Amadou ma oo Astou Dione mu ne ma jëluma kenn lundi ma ko lundi proposé woon dinaa ñëw 2S mu ne ma kon ngi def léegi annonce ban annonce bi Euh, maître. <laughs> Euh, nañ nañ nañ avancé ba nga faral Amadou Ba yàgg na. non man. faraluma ba contre ma ko de. non faraluma faraluma Amadou Ba eh, maître mais nag yow bul def raccourci. j'ai fait contre ma kenn nga mën ñëpp laa yéene jàmm ñëpp journalistique. et je le yow boor. et eh, et eh, maître te dire une chose. Ah. tey ji tey su ma tànnoon benn nit wala dafa ak moom émission président Macky Sall ne ma day def émission ci Macky Sall Macky Sall dem. Macky Sall du Ba. non man chef de l'État. mais gardien de la constitution Amadou Ba c'est le premier ministre. il est candidat à la candidature de la. mais yéen combien de président Sénégal de Hadjibou Soumaré à Habib Thiam Feu Habib Thiam. de Souleymane Ndéné Ndiaye à ah, ah, ah, Mimi de de Boun Abdoulaye Dione ah ah ku nekk na fi nag président Idrissa Seck. waaw d'accord. premier ministre moom ministre benn mais am nañu am na tey su ma amoon yenn ah. invité yi Idrissa Seck na ma daa bëgg a wax dama koy damay décommandé benn invité bi ma jël Idrissa Seck. saa ah, bu doon man maa ah. ma ne. Idrissa Seck su ma woo woon tey ne ma day day wax pourtant non non waxuma la yow waxuma la yow dama ne Idrissa Seck tey su ma woo woon ne day dafa bëgg a wax. je damay jël Idrissa Seck décommandé benn invité bi ça dépend des enjeux aussi. bu doon man maa ngi invité Idrissa Seck bëgg ñëw da nga may décommandé. non non je pas à cette question. c'est pas ça le choix xam nga junj junj. histoire suñu émission neex na ba pare. mais il faut que reconnaître quand <laughs> booba joxe un de pouce à Amadou Ba. non je euh, Amadou c'est Amadou Ba qui est venu se défendre. un premier ministre ban coup de pouce laa il a tous les droits quoi. ban coup de parti. ma ne de parti candidat à la présidentielle. comme Macky Sall. nga euh, war ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. ma ne nga ne mooy priorité sur Macky Sall. non ah, ma ne. jox ma ko boo boo jël Macky Sall à l'époque bi mu laaj réew mi Souleymane Ndéné ministre sortant Macky Sall nga ko ba pare Souleymane Ndéné Ndiaye dama bëggoon émission nga ne Macky Sall soo kon tey jommi ko Macky day falu xam nga bàyyi leen affaire yooyu complexe yooyu. mais maître du. du de la profession. le complexe de la fonction journalistique. et je l'assume. faut pas avoir le complexe de la fonction. non maître c'est pas complexe de fonction. amoon ba premier ministre yow. waaw. bu fekkee ne programme nga un chef de parti. prise de parole du premier ministre c'est pas n'importe quel type de parole du premier ministre candidat à la candidature c'est pas n'importe quelle. ah donc c'est candidature supérieure à celle de El euh, maître. les candidats sont d'égale dignité. j'assume le choix que j'ai fait. assume sama xarit nga nag si ça t'a blessé je m'en excuse. non non non. sama xarit mu ne blessé wu ma dëgg. voilà si ça t'a blessé je m'en dama gis loo xam ni très sincèrement mais yabaate la. non mais ñàkk fayda la comme ni la fonction de premier ministre daal. bul dugal moo tax invité nit vendredi. depuis mardi jeudi nga ne ko ah maître est-ce que doo may Amadou ba suba ndax kat. dama la laaj yaa nangu. daa bëggoon doo ñëw tey ma ne la ñëwuma tey nga ma leen ma ne man kay bu ma sàkkal laa ñëw ñëwuma leen di nga ma tee ma ko mu toog wala déedéet. xam naa ne programme ko ba pare kon wax nga ma lii rek yëgal nga ko ne war mën a ñëw kon may naa ko ko loolu laa la wax. waa léegi lan mooy débat bi yow yaa nangu. non dama doon dama doon di kii yaa benn parenthèse yow kay yaa mun a supporter parenthèse boobu. non man kay man kay nee la je l'assume. kon dañu jàll. waaw nañ jàll ci leneen. assume nga ni da ngay faral ni ndax premier ministre la. non non non kon de premier ministre bi jaar waroon nekk président. premier. ministre yi fi nekkoon bi bi bi président maître muy muy Souleymane Ndéné Ndiaye. bi wane daanu am na loo xam ne sama source interne. ah sama am na loo xam ne. Abdou Diouf bi muy daanu yow un premier ministre. s'appelait d'accord d'accord c'est ma source interne maître man su may jël ay invités je prends les invités en fonction. des enjeux moom la dañoo gagné patron Abdou Diouf. waaw d'accord mais je prends mes. invités en fonction des jël ay fonctions di ko teg ci kaw nit ñi. maître tey ji tey. Bassirou tey le président Lamine Loum un grand. tey ji tey grand commis de l'État. tey ji tey Bassirou Diomaye Faye bu génnoon prison ne ma may mun a damaa damaa bëgg a wax suba ma am benn invité bi su ma nattee fi sama intérêt nekk en terme d'audimat kon yaa ngi limité ci loolu su ma nattee fi sama intérêt nekk en terme d'audimat mën naa mën naa pro mën naa waxtaan ak sama invité ma ne ko ah kii kat euh, lii ak lii loolu ñu waxtaan opportuniste nga oui oui je man nag man nag je l'opportunisme non man man dans mon métier sur les plans ñun ñun les ñun ñuy la gauche les militants de gauche mais je l'assume l'opportunisme dañ ko xam maître on va pas perdre du temps sur ça. waaw dañ jàll dañ jàll dañ euh, jàll dañ euh, jàll. j'assume mon choix mais je m'excuse parce que yow sama nit nga lay won ne man. sama nit nga naa ne bi nga solde compte bi. y' a pas de may nekk ministre. sama nit nga Amadou Ba ministre. waaw d' ba may nekk député Amadou Ba nekkul député. d' accord ba may nekk l'homme du 23 juin Amadou Ba kenn xamu ko. d' accord kon nan tëb a tëb ñun ñi laaj ak fi ma jaar yëpp sama dama am am jaar jaar. waaw maître la bon je l'aime bien c'est mon ami on a été ensemble pendant longtemps mais gisuma war a tax privilégié parce que c'est la fonction. mais mais man maay man maay xool les. ans mais yaa may invité tax nga invité ba man waxtaan naa yow nga nag maître bu lii bu mu yàq suñu. émission yi tam mais da nga bëgg a defar sa bopp alors que bu doon defar sa bopp da nga erreur bu rëy foofu. je je je je m'en excuse voilà non non man kay nee naa la assumé naa ma ne. parce que mën nañ la xaar ci coalition bi ànd ak Bassirou Diomaye fay mën naa dem ci coalition yëpp. ah yëpp je n'exclus aucune coalition. yow mën nga dem nga ànd ak Bassirou Diomaye Faye mën naa am sama jël ndaare man xaw ma ci loolu dara dama ñu la. gisuma ko ah, gisuma ko sama analyse sax gisuma ko bu jàll. mais dama ni la dama ni la et je n'exclus aucune coalition kenn moomu ma ginnaaw rek kenn nenu ma bennoo moomu ma. la preuve je suis resté hors du pouvoir vraiment de Benno génnuma benn fonction pendant douze ans pour rester libre ñu ngi xëccoo poste yi xëccoo ba benn poste. waa léegi maître. ministre DGO yëpp muñ naa ko. waa léegi maître. donc ça ne m'intéressait pas parce que je préparais la présidentielle cette année c'était mon heure maa war élection yi fu mu dugg dëkk yi toj partout les gens se mobilisaient pour recevoir des sànni. celui qui est dans leur cœur kii xeexal askan bi hmm. bi muy tàkk ci taxal moom kenn seulement defan askan mu moom kenn ñëpp di taw ñëpp di nëbbatu bande yi di taal dëkk bi voyous yi terroristes yi rebelles yi islamistes yi djihadistes yi bëgg taal Sénégal ma jàlloo ñoom bay taalaale sama kër ke yéen kenn du wax bu bay répété loolu te ñu tax keroog xanaa procureur bi ma ne kër yi ñu taal bi mu invité presse sama kër gi ñu taal iñaane ko sax wax benn journal taxaw sax wax loolu ndax ragal nga booy saaga la ñëpp dañoo ragal ñooñu saagakat yi man la ñu war sax kenn juum ba répété El Hadj bi dañuy sànni taxawoon na réew mi di ko xeexal bañ taal këram kenn du ko répété. mère on n'en a pas fini avec le conseil constitutionnel. Euh, am na collectif bi mais tamit tey. Euh, ki nga xam ne moom mooy euh, maître Amadou sàll mm. dafa dem déposer ay recours contre des des des, des candidats. Parmi ces candidats-là euh, y a Bassirou Diomaye Faye euh, Karim Wade moom nanguwul préciser nee na conseil constitutionnel dina ci communiquer mais ñu for ci weeyu bay ne euh, y a Cheikh Tidiane Dièye y a Karim Wade y a euh, Bassirou Diomaye Diomaye ban acte boobu ñu posé yow ban lecture nga ci am. am na ci droit. waaw am na ci droit mais xam nga man juriste mhm. am na. am na proclamation provisoire des candidats retenus ñu ci d'accord am nañ droit protester conseil bi xool loolu la autant Amadou Sall mën na ko def autant ñeneen ñi mën nañ koo def loolu yoon la. waaw mais la yoon bi. ndax yoon waaw mais est nekk ñu di dugg ci ay subterfuge euh, politico-judiciaire yoo xam ne euh, mën na servir à éliminer des candidats parce que au centre de la controverse en tout cas débat li gën a li ñu gën a euh, teg baaraam mooy la question de la binationalité. man loolu xaw ma ci daal li ma xam daal mooy Karim Wade a répondu li ma xam daal mooy ku ci nekk am nga droit dénoncer ku ne am nga droit tontu. yoon moo ñu ko may. waaw mais nekk ñu di préparer ay manœuvres pour pour. loolu man du ma yow comme man man du ma gis man du ma yow yow mi nga xam ne mën nga xam ñi war a gagné ñi war a jàll man man xaw ma loolu man du ma yàlla du ma yonent du ma du ma malaaka du ma jinne te du seet du ma dugg sa xuloo xëlwa pour xam kan mooy xaw ma ci dara yàlla mbiram kenn mënu koo xam da ngay xeeb euh, xal mu lakk sa dàgg bàyyi leen naan diw diw diw am na doole fekk diw moom xamoo sax ci àll bi di ko ni ci bajee biir ville bi rek ak seen télé yeeg rajo yi ak seen site yi ngeen dem saye alors que man dem naa ci àll bi ñu ne ma diw xamuñu ko diw xamuñu ko. kan lañ la wax ne xamuñu ko. diw xamuñu ko dañu dama tudd kenn. waaw man waxuma loolu dama ne yow ni ma pourtant yow nii yow la ñuy gis yow pour ñun te ñun ñii ñooy wote xale yooyu ñuy wax du sax wote am sa carte euh, dama ne ñu recours yooyu ñu dugg. contre euh, certains candidats est-ce que du brouiller. le jeu électoral. non Moussa mooy nañ bàyyi ñi war a bokk bokk ñoo defoon dialogue ba ni Karim ak war nañu bokk na bàyyi ñu bokk loolu laa gëm. bu ñu fi wax waxu cutis bu ñu fi wax waxu paiement. amande cutis sax du loolu parce que ay amande ak impôt du benn am na yoo am na am na ay différence ay différence façon générale bu ñu fi posé. détail yooyu donc donc je pense que li ma foog mooy Karim xalifa Khalifa ba ñu oowee dialogue bu ñu ñëw ba tax am ñu leen mere ci loolu ba ñeen ñu dàq leen comme xalifa ci coalition bi bokkoon tey war nañu ñëw jomb ñëw di peeral ñooñu ñëwoon ci dialogue bi. di leen éliminer di leen éliminer loolu loolu c'est inélégant nañ bàyyi ñëpp bokk. ñoom Bassirou Ousmane Sonko fa mu nekk nii même Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi nga xam ne dañu mooy sama noonu man aw ma noonu jàmm laa ko yéene bëgg nga mu bokk bu fekkoon ne remplir de conditions yi mais ko waaw mais remplir ko ça c'est mais xam nga boo remplir de conditions yi da ngay bokk waaw am na lu tax remplir conditions yi c'est un débat tout un débat mais conseil constitutionnel du moo mu nee na ma du ma bokk te ma remplir naa yëpp joxe naa parrainage ji ma laaj waaw mais. Euh, <laughs> joxe naa par yi ma laaj léegi mais pour le cas Ousmane Sonko on peut s'interroger aussi euh, sur les raisons qui font que remplirul conditions yi. man ñëw mooy pour surtout kooku man li muy li muy ay conditions li ko concerné man li m'intéresse daal man waaye yéen naa ko jaam xam naa ne mais li ma la ñu daal mooy que war naa bokk wala bokk sama yoon nekku ci loolu loolu conseil constitutionnel ko war a tranché. non man man fi ma lay interpeller mooy yow avocat nga. Euh, légaliste nga c'est quoi cette cette procédure ci yi am ci élection yi bañ demee 2019 euh, ñu ñu modifier l'article L57 éliminer Karim Wade éliminer Khalifa Sall ñu ñëw 2000 euh, ñu nar a dem 2024 mu am des candidats de potentiels candidats à l'élection présidentielle ñu intenter des retour di poser waat la question de la bi nationalité parce que yaa ngi jaxase. lan laa jaxase. lañ defoon article yooyu changé woon. di pas changé benn article. pour non 2024 laa wax. 2024 non am ñu jàll. li euh, comparaison n'est pas raison sa comparaison am ñu jàll parrainage ñu newaat di. Euh, benn bokk yaakaar di intenté ay. comparaison est mauvaise non je ne compare pas. je je je je donne de une succession de faits. waaw 2024 mu am ñu jàll. nga xam ne peut-être que euh, jàpp am nañ njort ne mën nañu valider seen candidature euh, benn Bokk Yaakaar di intenter des recours contre des contre contre certains candidats et puis ñu teg euh, au au centre la question de la de la binationalité. man du man débat yooyu du ma ci dugg. lu tax xanaa doo avocat. du fii doo juriste du ma consultant fii ci ci sa télé bi. waaw mais damay damay sàkku sa xam-xam. non du ci wax. nañu bàyyi conseil constitutionnel bi léegi kii tranché xam lu wax kenn mu ci dara mu tranché waane weesuwul waane ak sob dugg ci débat boo xam ne am na koo xam ne moom lañ fay ay millions ay salaire conseil ay jumtukaay pour ñu tranché seen liggéey mooy loolu le contentieux électoral. ak Aly Ngouille Ndiaye fàtte naa boole nañ ci Aly Ngouille Ndiaye Boun Abdallah Mohamed Boun Abdallah Dionne euh, ñu ne. Eh, dañoo war a toog au minimum six mois balaa ñuy mën a présenté wu. xam nga yow duma ci wax am naa xam naa ci lu bëri nag. mais ak ma cee mën a wax. pourtant nag bi ma annoncé. ak ma cee mën a wax mais pourtant pourtant gars yi yaakaar boobu lañ am mais gars yi yaakaar boobu lañ am. mais non xam nga lu tax. waa dañu wax ñun en tant qu'avocat bu nekkee ci plateau lu nekk en instance atteguñ ko waruñ cee wax. man commentaire politique laa soxla. yow fàtte woon ne man dañu ma suspendre woon fii presque 17 jours. si ñu ne ba sama wax bëri na si du ma am autorisation di bateau yi. mais man politique bi man man ma ca waxee léegi nii ñu ne ma amoo autorisation. procédure non man waxuma avocat bi. man. Euh, mais même même l'homme politique. homme politique bi laa soxla moom moom avocat aussi. non non du ma dugg ci détail yoo xam ni. non non non man invité wu ma avocat bi man homme politique bi laa. loolu laa pourtant au des avocats ñu ne ma mënuñ nangu loolu. mënuñu dissocier ndax yaa ngi wax ay questions juridiques ci plateau bi. kon sa xam-xamu avocat bay wax. waa mais yow politiquement est-ce que c'est fondé est-ce que c'est censé recours yooyu ñu déposé contre Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye au prétexte que bi ñu euh, démission démissionné wuñu euh, contre Cheikh Tidiane Dièye contre Bassirou Diomaye euh, contre Habib Sy. du ma ci wax ndax sama yoon nekku ci am na ku ñu fay weer jox leen ay moyens ñu tudd conseil constitutionnel. ñu war a saytu xool ñu war a bokk li ñeen topp ndax dëgg la am déet ndax mën leen a xañ ñu bokk ci élection yi bu boobaa dana motiver décision am ma taxaw di waane di jox leçon waa conseil constitutionnel. mais euh, cette donc, question de la binationalité est-ce que waruñu koo régler benn yoon. Euh, mu mu féete man du ma ci débat loolu du ci débat. lu tax ndax ñi ci dara du ma ci wax ak ñoom. ñi ciy wax ñu ci bëri ay sax ci dara di wax rek may ree rek. dama ne. ak ñuy wax xamuñ dara ci loolu dama ne. dañ ne euh, pour être candidat il faut il faut être ex waaw dañoo war a wax ak ñi nga xam ne xamuñu. maître aussi dañ la woo fii pour loolu. man ñëw en tant que en tant que seen seen consultant ci affaire en tant que candidat recalé. vous êtes un le parrainage. les élections ma ne wala les ma ne les les les les autres. vous êtes un homme politique la dynamique unitaire. est-ce que exclusivement de nationalité sénégalaise. duma ci tontu. <laughs> maintenant vous êtes un homme politique. mu am une nouvelle controverse bu concerner la question de la binationalité. Thierno Alassane Sall déposé un recours contre Karim Wade Karim Wade a répondu en disant que il a renoncé à sa nationalité euh, française ah, alors voilà alors man li may li may li may laaj mooy est-ce que addina bi évolué wul euh, ku mel boo jëlee kaaw ku mel ni Karim Wade moom dafa dafa dafa dafa nàmp euh, dafa dafa euh, nu mu France euh, ci quatrième la bokk. Mm-hmm. est-ce que war nañu toll en deux mille vingt quatre fi ñuy demander à une personne qui a deux patries qui est à cheval sur deux patries. Mm-hmm. de renoncer à une de ses de ses de ses patries mères. parce que dafa war a nekk président ak monde bi nu mu évoluer globalisation bi euh, citoyens yi ni ñuy déplacer woo d'un continent à l'autre te dafa mel ni la question de la binationalité nar na indiwaat problème ci élection bi te question binationalité boobu dina la lakk na Côte d'Ivoire ah, ah. te dina ko lakkaat tu as vu le cas Tidjane ci ci Tidjane waxu waxu nationalité ah. Alassane Ouattara à l'époque gis nga fi mu mëne Côte d'Ivoire euh, actuellement y a une controverse autour de Tidjane Thiam ñu naan sénégalais la c'est pas un Ivoirien de souche voilà question binationalité su footballeur yi li ñu yox ndam lii ay ñoom ñëpp ay biir national lañ ñoom ñëpp léegi mel ne seen réew yi cosaan seen réew bàyyi am na ñoo xam ne mësu ñëw Sénégal avant ñu leen au équipe nationale ñu nga juddoo France dégg sa olof nekk ay français après seen bàyyi nag Sénégal wala seen yaay ñu tëddee nationale sénégalaise léegi ñuy football di di gagné bàyyi wax yooyu nañ bàyyi yooyu daf ñuy tardé donc bu fekkee ne dafa bokk ci neuf pièces yi yow da ngay préconiser une réforme pour ñu. loolu pour faire sauter ça bañ aussi de façon ponctuelle problème am na yéen tout de nañ ko réglé loolu da ciy réfléchir lu yàgg xalaat ko xool les tenants et les aboutissants les avantages et les inconvénients ne ah léegi nag ñëpp d'accord ci mais pour le moment Karim nee na moom bàyyi na national ba de. dañ ko fa bàyyi loo xëy na bàyyi na ko xëy mais du Karim Wade rek am na beneen candidat bu ñu visé euh, pour une affaire de binationalité. boo xam ne def nañu bon je veux pas. kon Karim rek mën a wax du Karim kese. non en fait Karim le débat il est connu. keneen ki euh, les vérifications sont en cours mais je sais que euh, ci recours bi ñu ne a déposé contre moom waxu binationalité. mais tudd ko rek fii que transparence la. non mënu ma ko wax xam nga yow tamit am na am nga loo xam ne. nee nga boo tuddee Karim ci benn exemple kay ci ñi nga xam ne ñoom. non Karim Karim man gëm naa ni li ma gëm de mooy nee na joxe na preuve ne moom renoncé na à sa nationalité loolu lañ ko laaj xalaat ji jeex na ah bu renoncé mu ne renoncé na génne preuve joxe ñu yóbbu lu ci des léegi nañu bàyyi xam nga esprit dialogue bi mooy ñëpp bokk nañu bàyyi di génne kii génne kële ku mën sa morom duma ñun lu ñu génne soixante quatre mille parrain xanaa ma lii ci benn benn benn benn télé bu génn le matin El Hadj Ba récalé pour insuffisance de parrainage insuffisance man insuffisance laa def dañuy wax doublon rek man dama yow gën soixante quatre mille laa dama. mais euh, da am ay doublon mataloo. kon kon yow le mot parrainage. lañ ma laaj am naa ko. waaw wala français wala chinois mais mataloo. dama ne le nombre de parrains requis. am naa ko. parce que da nga am ay doublons. waaw d' accord mais c'est les parrainages. waaw d' accord mais insuffisant kay. ça mais non non non non on parle français ou on parle pas français dañ ne parrainage citoyen on vous demande quarante quatre mille trois cent nangam. nga indi cinquante cinq mille cinq cent soixante dix. waaw mais ci biir cinquante cinq mille da nga am ay doublons. amul benn doublon interne. zéro doublon interne premier deuxième tour yëpp zéro doublon doublon mooy nga du bind nit ñaari yoon loo xam nga càcc la am parrainage ñaari nga bind Modou Fall ñaari yoon may mën a Ndour Faye ñaari yoon loolu mooy doublon interne man j'ai eu zéro sur cinquante cinq mille. mais da am doublon externe. mais nu ma ci man aw ma ko. dañ ma ko dañ ma ko teg bàyyi leen wax yoo xam du wax du waxi nit dañ ma laaj loo xam ne indi naa ko xaw ma nag keneen la ma am. ñu ne ma a bokk. mais maître c'est les règles du jeu. les règles sont mauvaises dès le départ wax naa la ko mais si on parle français bu ñu laajee quarante quatre mille trois cent parrain ngeen di cinquante cinq yoo xam ne benn du ci foofu yëpp a valable. mais nag avec des doublons externes. lan mooy doublon externe. ah leeral ko Sénégalais yi. am na beneen candidat boo xam ne euh, moom moo la jiitu. nu euh, la jiitoo. Euh, moom moo la jiitu ci liste bi ci parti ci loterie bi moom moo la bi. ah on retrouve les mêmes parrains comme que que moom. yow léegi vous en avez souffert léegi léegi lu la ñu laaj. waaw mais dañ la laaj parrainage benn sénégalais bu nekk benn nit nga am droit parrainer. waaw léegi entre yow mi ñu parrainé ba pare parrainé keneen ki ak ki nga parrainé yéen ñaar ku tooñ. mais c'est la justice qui doit tirer les conséquences. la léegi entre nous kan moo tooñ. ah loolu moom xaw ma. ah si. kenn xamul ca ba ah, ngeen di collecté ah si si kenn xamul ca ngeen di. collecté non moo jiitu. non jiitu warul am. waaw ah. nañ bàyyi jiitu. xoolal moo jiitu ci électeur la moo jiitu ba ko waxee. tu devais yaa ngi yaa sa bopp. non xam nga ni. day honnête wala non électeur bi pare ne. deux trois candidats moom moo def faute bi. non déglu ma Modou ngi ni ak Sidi Awa pare na Modou pare na Sidi te Modou yëgul Sidi yëgul Modou foo ne am na parrainage doy sëkk ndax mu ko yore ci loxoom Sidi yore parrainage yu mat sëkk yóbbu. Moodu njëkk a jàll ñu ne Sidi yow doo jàll ndax parrainage yi am kii am na ko moo la njëkk a est-ce que yow tu sais yow la njëkk a parrainé mën naa am la njëkk a dal dal na Idrissa Seck dal na mu mu dem. mu dem rectifier ni loolu du yoon. c'est-à-dire yéen dal na Serigne Mboup mu rectifier réussir. waaw dégloo ma. dal na Aly Ngouille mu rectifier réussir dal na Boun Dionne mu rectifier réussir maître. réussir amul kenn réussirul kenn échoué wul c'est n'importe quoi. maa ko nga dem wuti sa job sa ngor am cinquante cinq mille am trois cent mille comme man trois cent mille par la dajale naa ko dugal ci cinquante cinq mille xam ni am nga marge de onze mille onze mille cent fukki junni ak benn ak téeméer yu ëpp li ñu ma laaj barke alxuraan war naa ko ñu dégg ne ma am nga huit mille fii noonu daan fiyee sur le fichier électoral yoo xam ne yow pour la. dal na bugaan ngay mu mu mu mu. rectifier réussir waaw du ñëpp dem nañ ci géej gi da nga war dugg ci géej gi dee. kon am nañu am nañu ñu ay famille yoo xam ne seen doom yëpp a dee ci géej gi kon da nga ba ñëpp yeneen famille yi dañ def dee yëpp ci géej gi lu bon naa ñëpp nangandoo mais c'est la loi moom moo war a def sa doom ci géej gi dee dañu war a appliquer la loi mais la loi elle est mauvaise donner des exemples c'est que lu yow am na ñu mu dal ñu rectifier parce que yow position bi ngay défendre c'est une position injuste injuste malhonnête malhonnête ah est dangereuse. lan laa défendre comme position ndax non ma xam ne yow la position qui est pas yow position bu ma la da ngay défendre xam nga tax yow bu jógee ma dem Tambacounda pare nañu normal ñibbisi si nit ñëw joxe fa ay millions ñëpp pare na ko moom it ñu ñëw toog ñu tiire bu njëkk ma jiitu ñu ne ma yow da ngay toog ndax am nga doo am ngay doublon. ça le coup du sort c'est la ne mooy loterie mooy élection loterie nationale élection loterie du normal élection dafa war a sérieuse leen ñu ah. yéen journaliste yi ku mel ne yow yéen waroon taxaw en tant que. mais lan lañ mën ci loolu. yéen du ñu la wooyee yéen vous êtes les historiens du présent ngeen taxaw ne ah li am Sénégal suñu dëkk da ñaaw na ndax nit ku dem wëri am nit mun na taw fi Dakar gi yónnee ay millions ñu jox ko ay parrainage mu njëkk jàll yow mu wuti woon ba am fekk ay millions tax ñu jaay si même parrainage ñu defal ko keneen kooku jàll ñu naan diw da jàll waaye diw da jàllul. ngeen di taxaw ne eh fii kenn jàllu fi fii ñëpp jàll wala fii kenn ñëpp a jàll wala kenn jàllul ndax kat tiitaru amu fi ndax eh, jiitu rek moo fi nekk jàll ku jiitu da ngi ne la yaa yaa yaa jiitu ci topp ci ay doublon la am war war ngaa war ngaa fier. ñu ne on est fier des femmes qui ont waxuma femme dama ni man wax dama ni. kontaan nañ ci ñoom amal na amal na leen da ngay ruubee man ruubee dama ni. non ruubee wu ma non dama ni may ma. on est fier non mais Euh, Rose ah. ak euh, ma ma ma nièce Anta baaba ah. je suis très fier d'elle. fier de Pape Djibril je suis très fier. je suis très fier de Pape ah. Djibril moom neveu. waaw yaayam ak sama sœur bokk benn classe. waaw Caajaay. dañoo def dañoo yàlla na yàlla jàppale ñëpp dañoo def delloore. yu mag yàlla na yàlla jàppale mais dama ni naa feex ak rambaaj moom mënu ma yëngal dama ni <laughs> euh, bu fekkee ne nit toog na këram jënd ay parrainage. nit dem ci àll bi wuti am ñu tiire kooku jàll yow nga amay ay ndax lam am nga am. maître non non ma posé benn question rek. maître yow da nga koo déglu de. que débat bi foofu nekk. maître tout le débat. léegi est dans les doublons léegi léegi. yow maître El Hadj Diouf da nga dem wuti parrainage. oui man may ma doon fay ma dem wuti parrainage. ah. ñu ñëw ñu tiire au sort. man ma jiitu la. yow nga bari doublon externe. maam li nga am ci bokk li nga am maître voilà mais maître kan moo mën a taxaw témoigner ne maître El Hadj Diouf moo njëkk ci électeur bi wala may moom du fekk moo njëkk ci mën na kenn xamu ko. loolu may wax ji yow nag ci sa bopp yow yow yow bi du foofu. débat bi di kenn moo mën a seet ku njëkk. non non débat mooy lan dafa am. warul am. loi bi dafa dañ ko war a appliqué na ñaari nit. mais du loolu laa la wax kay. état bi sax warul nangu loolu comme am na nag ñu nangu ko benn yoon soo dañu nangu nii mënul nekk ko def tëj la loolu la yoon wax soo ñu bàyyi doublon yi jàll comme ni ñu koy bàyyi mu jàll favoriser doublon yi ku am doublon yi da nga jàll parce que am nga parrainage man dama man dama jàng français jànguma russe dañu wutal wutal parrainage ma wut nii la mu ngi nii kenn moom bu amee doublon loolu du parrainage. <laughs> ma ne ñu laaj ba 44 000 ba ci de 55 000 parce que loi moo benn sénégalais benn candidat la am droit parrainer maître. vraiment d'accord naa mais ñu koy tourné fii ba suba wala ba émission bi jekkoon dañ ci yem dama kooku da nga bëgg a toj bopp Sénégal yi dama ne ñi jàll amuñu benn mérite par rapport ñu bu dee ku yi toog ndax doublon gàcce ngaalaama ndax la ñuy wutloo am nañ ko l'autorité nationale nag. ku ci am ay millions dañuy wax sax xaalisu loterie daganul kon ndamu ndamu loterie bi daganul. waaw d'accord kon bu fekkee da ngaa wuti sa morom wuti mais ñu def tirage au sort kii jàll ñu ne yow li kii am moom nga am doo bokk ti moom wuti na parrainage bi ñu ko laajoon. d'accord xam nga kii treize députés la indi kii ne 44 bi ni ñu ko laajoon ñu ne ko non indi nga lu valable na mais kenn kii am na ko parce que bu daan député nekk ci député. mais mais mais lan ngay wax ñu naan lan ngay wax ñu naan en réalité bëggul woon dem une élection c'est elle est elle est elle loolu. ah man de dégg naa. waaw sama noonu la rek ak yi nga xam ne ay. est-ce que El Hadj Diouf bëggoon na dem élection ñooñu ñooñu parce que quand même vous étiez à ça. yow ñeneen ñi ñoo la ëppale woon doublon. bi ñu ma laajee 3000 bi ñu ma laajee 3000 xam nga xam nga dama déposé 11000 de plus yu teq ma 14000 14500 mu def 3500 ma déposé 8500 deuxième tour bi. kuy wut 3000 déposé 8500. man kay lu tax jàlloo moom ma. jaaxal mu ngi mu yi. non mais gars yi dañ naan El Hadj Diouf est-ce que bëggoon na dem élection ñooñu ay naaf parce que amul xaalis. dañu kàcc élection dafa cher. dafa métti man mi dem te parrainage man mi dem man ba dem ba Kédougou ba Kousanaar fanaan Tamba 3 jours dem Kolda jóge Vélingara jaar Jadamalari dem ay Nioro dem fu ne ma dem fa dem ay toj ay Mbege dem ay Lambaay dem ay Ñiibi. dem Touba trois fois dem fu ne laa dem dem naa ba dem Ndofane Mbouré dem naa Ndiobène Tallène fu ma dem samay million fay des ma préparé sama milliard pour campagne. Hmm. plus bu ma tax a wax. xoolal dama ni bu bu ma sax nit ñi di xam wax baaxul. budget campagne un milliard dama ni dama ni buñ ma sonal dama xam nañ la le candidat le plus dangereux man la woon. moo tax moo tax jëlee ma fi ndax gis na fuuli topp ma. te je le plus généreux. donc euh, yow conseil constitutionnel ces décisions euh, euh ay doublons c'est injuste. non c'est illégal. waaw pourquoi c'est illégal. li mu wax c'est pour c'est des décisions euh, politique moo ko lal. ku la ko. ah conseil nga ne nga ne nga ne nga ne. gars yi bëggul nga jaar bu fekkee ne wutal ay doublons ñoo xam ne waruñu ko am nag ñii ñoo ñoo xam fii am naa fay ñu dem corrompre leen jënd seen i indi. mais ñooñ ñooñ pourquoi doo leen mettre à nu waxal ñan ñoo la def loolu dañ bàyyi ba wax jot ba sama livre bi génn ah da nga nekk di bind livre <laughs> yaa bay taxaw yow ba bëgg toon wax sax xoolal xoolal may mun a da man da nga nekk bind livre may mun a may mun a xam hmm. nga bu njëkk bi cinquante cinq mille la woon waaw cinq cent soixante-dix deuxième deuxième bi deuxième bi kay xool xam nga li ma demandé woon trois mille mm-hmm. xool li ma déposé déposé naa ba déposé ay Italie ay Gambie kay liir li loo liir li loo Espagne. Espagne Gabon Espagne. Mm-hmm. deux. Gabon deux. Mm-hmm. Gambie deux Italie. Mm-hmm. donc ba pare dama ne nombre bi nombre bi laa bëgg nombre bi rek ba léegi nombre bi mu ngi mhm. total total bi total huit deuxième kii bi huit mille cinq cent dix sept. Mhm. alors que je cherche trois mille xoolal total deux deux bi mooy deux bi ah total deux total parrain déposé huit mille. huit mille cinq cent dix sept. ku ku trois mille. waaw mais peut ci huit mille tamit da nga amaat yeneen doublon déglu déglu déglu déglu noonu daal di fiyee trente et ci huit millions xoolal doublon externe quatre mille neuf cent vingt en un encore. ci 8000 yu bees muy 5000 4900 ak ak noonu daan fi muy 5000 yu ma tëq ci 8500 yi xanaa ma dese 3500 da da ko 3000 et quelque la wut moo tax man je suis le bu ñu actuellement par bi tous les recalés man maay 22e. 21 jàll maa mm-hmm. <laughs> a proche. maa mais mais mais d'ailleurs may ma may ma xoolal don état fii 7000 doublon doublon interne. mais de zéro zéro. démb dama invité. Aliou treize mille. doublon résultat quarante trois mille cinq cent cinq. ku doon quarante a mille xoolal. 43 500 yow kay lii lii lii rek moo ci desoon. kon ku la wax ne man a gagné. mais mais ku la bëggu ma woon def élection. ne ko da ngay kàcc. ne ko kàcc nga ci boo dee li nga sa bopp. mais mais mais démb Aliou Ndiaye kàcc kat rek mu mën a wax loolu. Aliou Ndiaye laa invité mu préconiser. mu ne conseil constitutionnel puisque euh, puisque ces recours ne sont puisque ces décisions ne sont ne, ne sont pas susceptibles de de recours euh, conseil constitutionnel mënul nekk juge et partie dafa dañoo war a créer une juridiction intermédiaire boo xam ne bu la conseil constitutionnel rejeté juridiction boobu càmbar ngeen doog a delluwaat ci conseil constitutionnel euh, c'est c'est c'est une proposition bu ñu. boobu n'est pas juriste boo tax wax loolu non mais il a été ministre de l'intérieur aussi. ça veut dire ministre boo ko nekkee tax nga juriste. non pas que nekk. ingénieur boo ko laajee politique ay la. ma ne c'est un homme politique. mais affaire droit moom euh, ministre de taxul nga nekk nga xam droit bi yow. waaw d'accord mais il a été ministre de l'intérieur. quand même mais il n'a pas été ministre de la justice. d'accord mais il a été ministre de l'intérieur. non dafa dafa dafa def proposition. waaw mais dafa di proposition ça ne tient pas. pourquoi. d'après yow dañuy wax yeneen quoi. mais pourquoi ça ne tient pas d'après yow. non non non li ñu war a wax du lii yëpp. Hmm. parrainage bi daal. parrainage bi kay pare ku ko wuti ba am ko ak noo ko mën a amee bu dee am nga ko waruñu laa baare ndax am nga lu moof comme kii am na lu moof tey doo fa génn du yoon wuti naa lu moof nga wuti lu moof nga am moof ma am moof bu doon aw ma moof rouge laa indi wala vert ñu moof lañ la laaj. mais li nga laaj am nga ko barke alxuraan barke nabi Moustapha li ñu ma laaj am naa ko ku taxaw bind dina El Hadj Ba a été recalé pour insuffisance de parrainage boo ko dëgg danaa pour doublon mais mais parrainage kenn du sëkk ndax du faux parrainage le mot français parrainage am naa ko le nombre demandé am naa ko. mais da nga am na ñeneen ñu ko am. mais da nga am doublon. mais bàyyi di wax yi daa fekk loolu wax yi daa fekk la dama gën a ma ndax amoo parrainage dina mais mais mais mais non may mun a. nit ki day honnête. mataloo mataloo parrainage parce que da nga on les a éliminés mataloo parrainage maître parce que da nga da nga maître. maître kon lan laa indi kon. bu ñuy wax bu ñuy wax dama dem jëlee woon bu ñuy wax matal. ay ay matal ma mburu ay mburu lañu ay mburu mooy chiffre bi ñu demandé. chiffre ñaata mburu lañu demandé ay mburu lañu demandé woon da nga da nga manqué le dañ ne minimum 44000 da nga manqué le yaa ngi woon ci 43000. maa ngi woon maa ngi woon non non yu baax. yëpp a baax maître non non maître tamit bul bul. nee euh, bu baax yaa ngi ci. 43 505. mais jarab ma macha allah. lan moo baax ak lan moo bon. comme député yi a député yi am na bon ak lu baax. non sa sont les règles du jeu nee nga nangu. règles yi baaxul dama bëgg bu fi jéem a def loolu Sénégal yi gëm na El Hadj dafa manqué de. ku manqué le mooy le parrainage. c'est pas vrai la vérité. c'est pas vrai maître on demande minimum. quarante-quatre mille c'est pas vrai. vous soixante-quatre mille. mais am doublon externe. mais doublon lu mu ci te doublon externe mënoo mënoo. doublon yi dama ay bon au champ la. nga ne. doublon ay bon la la déposé place. non xaw ma lan la. ma ne doublon yi ay externe la dugg place place place place. mais euh, da am doublon externe place parrainage dama da day mu leer tey mu indi parrainage mais keneen am na ko rek nga indi mais non loterie nationale da nga indi cinquante élection loterie nationale da nga indi cinquante cinq mille am ay doublon externe ñu ne la demal nga mottaliwaat nga ñëwaat waaw nga amaat ay doublon externe d'accord ñu ne la quarante trois mille d'accord cinq cent cinq noonu la demee mais ah non mba weesu na mottaloo maître ëpp na parrainage yu baax ëppal na ndax lañ ma laaj in naa benn lu ko ëpp ci parrainage yoo xam ne yow yaa ko gis benn doublon interne amu ci doublon interne mooy yéen ñu suivre nga bind nit ñaari yoon ci cinquante cinq mille ma dugal benn doublon interne zéro doublon interne. waaw da nga am doublon externe je ne suis pas comptable des doublons externes je ne suis pas responsable des doublons loo xam ne amu ci benn responsabilité ñu ñu ñu ñu sanctionné la ci may ma ne soyez juste et honnête loo xam ne yow mënoo ci dara sa yoon nekku ci. loolu je suis pas responsable. mais à l' avenir à l' avenir vous êtes un homme politique mais faites des propositions je ne suis pas de doublons externes muy ñeneen ñi ñeneen ñi éliminé ñëpp ndax ba ngay wuti Diourbel ba ngay wuti Mbélacadiao ba ngay wuti Barkédji xam nga ndax boo génnee keneen am même parrainage. Aliou da nga ma sànq da nga ma ne sànq da ngay préparer livre. loolu sax du ma ci wax léegi dama war a ci war ko woon a waruma ko woon a wax génn. Euh, livre bi sur lan la sa biographie la ah euh, un témoignage sur la récente histoire euh, politico-judiciaire du Sénégal ba mu génn rek ah dana dana saf xorom dana saf sap lan livre bi da nga de apporter des témoignages ah mais bien période bi lan la non non ba bi bàyyi noonu ah boo du am sa xorom du am surprise effet ah. surprise alors du am du am bés bi mu am bu génnee alors am na Euh, dossier judiciaire bu ñu war a vider kenn jàppagul date bi muy euh, le la la question du retrait de Ousmane Sonko des listes électorales tribunal bu Dakar nee nañu ko nañu ko réintégrer son avocat maître Ciré Clédor Ly et d'ailleurs beaucoup d'autres comme maître Mame Adama Gueye nee nañu euh, nu mu tudd la décision euh, elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas suspensive pourquoi bi bi juge bi joxe sentence bi 14 euh, décembre pourquoi euh, exécuté wuñu ko. ku ko war a exécuté. ah ku war a exécuté. ah xanaa ñi ko ñi ko retiré. Ah, waa daal ñoo ko war a. dama laajal ko man nekk. ah dafa sa ah, naa cee war naa cee wala war naa cee def man sama yoon nekkul ci loolu. la décision selon yow elle ma ci du ma ci wax. ah du ci wax. du ma ci wax. dossier en instance la en tant qu'avocat dañu aaye ñuy wax ci dossier yoo xam ne kenn fi dégg ko en tout cas am nañu daan wax ci mais xëy na suñu cabinet wala suñuy waxtaan biir mais ci pas ci ay plateau télévision nañu dañuy jox warma ci àttekat yi bu ñu waxee la war a àtte ñoom lu ñu àtte après dañu bàyyi li nga xam ñoo ko moom àttekat ñu war a àtte waaye journaliste yi wax ñii di wax ku ne mel ni yow yaa ci gën ay waa conseil constitutionnel wala cour suprême wala tribunal Dakar wala bu Ziguinchor ah ñii di fecc fii ñii di yuuxu fii ñii di saboté fii ñii di wax nañ bàyyi yoon ni muy doxee mu dox yoon dox d'accord je vois que vous êtes respectueux des des des des injonctions et des instructions de l'ordre des avocats. da nga bëgg dàq ma nga bëgg nga xam ne y a des injonctions. nga ne je suis ma violer euh, loolu dama ne dama ne yaa ah. ngi respecté li ordre des avocats wax man ngay ñaanal ma la ñu dàq ah, nga ne ma posé question pour ma wax ñu dàq ma non non dama doon laaj rek moo tax ñu dàq ma de kon kay rek ma laa dugal non si da nga ma bëgg a dugal non met bëgguma laa dugal non met bëgguma laa dugal non si si non dama man commentaire politique rek laa soxla mais non non non commentaire politique bi ma ko waxee met pour terminer Euh, deux mille vingt quatre. Hmm? kii nar a falu. Euh, bu amee juróomi mbir. Hmm? yu mu war a lijjanti. Hmm? ci bu gën a gaaw. bu ñu bëggee réew mi ñoŋ. bu ñu bëggee Sénégal du nekk en danger bu ñu bëggee conserver suñu ak yi. lan la rapidement rek. d'abord sama programme mooy la sécurité. parce que xam nga y a y a une ceinture de feu lu ñu wër yëpp ay coup d'état la ay ay ay jihadistes ay salafis ay Mali xam nga alors beneen bi bu sécurité ginnaaw sécurité bi ñu assuré ko nga xam ne ku am magasin waa Sandaga ñu am magasin yi fu ne boutique yi mhm. station yi duñu xalaat ñu toj seen yi investir loolu la ful ak fayda da bi ma wëree Sénégal yëpp ñu ma wax en tant que candidat de la sécurité yow élage Hadj Diouf mhm. bi ñuy taal réew mi yow rek yaa taxaw moo tax yow la fal ndax bu dee ministre nekk nga ko xam nga lan mooy pouvoir exécutif bu dee député nekk nga ko xam nga lan mooy pouvoir législatif bu dee avocat muy pouvoir judiciaire def nga ba plus de trente quatre ans kon yow mën nga téye état ci am nga fulla am nga fit am nga fayda réew mi ko amul fulla mënoo ko yor moo tax fu ma dem ndeysaan booloo yi nit ñi ne ma yow dafa jot njox la réew mi boo ko yoree kenn du taalati kenn du rayati te da nga am nga générosité dimbale askan bi du ginnaaw ñu sécuriser réew mi ñu joxe liggéey xale yi. ci la industrialisation xam nga Goana am na fi. Reva am na fi. Prodac am na fi. dag yi lu ne am na affaire mbay mbay baax na lool mooy tax ñu am lu ñu dundee ñu jox la ay tracteur mais li gën a am solo ci xale yi di dugg géej gi mooy def ay usine ci département bu ne nga def usine bu jël trois mille sama programme la woon jeune département boobu dina am. développement ndax lan 3000 yi xëy di liggéey ci usines yi dinañ wut ay lal wut ay salon menuisier di liggéey wut oto di dawal ñi jaay oto yi di jaay oto mécanicien yi di defar tailleur yi di ñaw lu ñuy xëy di sol di liggéey ñiy tabax tabax ay immeuble ñiy liggéey loué ci loué ci appartement yi ba ba ñu gën a kër tu as vu que département bi daal dund ñi doon dem ci géej gi xëy di liggéey takk jabar ah jigéen yi di xëy di liggéey amul jëkkër it ba da tekki loolu mooy deuxième point mooy fexe lu contre le chômage et la précarité dimbale askan bi ci dundu gu cher gi loolu lu ñu war a gaaw a def la ba nga xam ni nit ñi toog ñu lekk duñu naan di dee ndax xiif am na fi ak di sàcc ak di rey ndax xiif donc war nañu fexe ceeb bi borom kër yi dañuy retraité di gaaw a dee ndax du joxe dépasse bu mat lépp a cher ginnaaw loolu mais. travailleurs yi parce que des travailleurs et du peuple du ma te loolu c'est urgent travailleur bi du am dara lépp patron bi koy moom moom mooy jël bénéfice bi jël doomam ay xajam ñu def vacances. d'accord <laughs> ah léegi travailleurs yi toog duñu am sa dépense phénomène bu jegee duñu am dara dama bëgg le ñu valoriser ko travailleur bi gis boppam ci liggéey. liggéey ba dee patron bi nangu comme bu ñuy bu ñuy dem nawetaan liggéey ba dee xorom si nangu liggéey ba dee jàmbaar nangu loolu du fi amati il faut ñu xool une juste et équitable répartition des revenus des sociétés ku la di béy baabu di dundee dafa metti boo xoolee différence salariale ñii di am ay quarante mille francs ñi cinquante mille ñi cent cinquante mille patron bi am dix huit million ah directeur financier bi am dix millions directeur administratif bi am huit millions. Mhm. ressources humaines bi am cinq millions. yooyu du fi amati il faut ñu fexe xoolal magistrat yi ñu di retraité à soixante huit ans ñuy soixante cinq am malaise seen biir boo nekkoo ci kilifa yu mag yi bu dee sa promotionnaire la yow soixante cinq ans nga dem retraite moom dem ba soixante huit ans statut des magistrats dañ koy xoolaat. inéquité la c'est ba ma nekk assemblée man kenn maa voté contre ba indee loi bi loolu loolu baax na ci bi temps yi maa ngi le président. Euh, Macky Sall ak mon ami mon confrère Antoine Mbengue mi nga xam ni tey inauguré nañ léegi premier vol Dakar Saint-Louis mën naa fa ñu koy wax ay tax taxi avion de nga ma xanaa. Mhm. avion dañ dem Kaolack di dem Louga di dem Saint-Louis di dem Tamba ah di dem Ziguinchor. am na mhm. même bu Sédhiou am na yëpp am na nañu au lieu que ngay dem di do accident yi bëri ci tali bi même Guinée bu dee bii. avion ñoo yóbbu ni ay Kouroussa ay Sigiri ay ay ay Sérékoré ah dëkk yooyu day am avion France boo taxawee Paris aéroport Montpellier Nice Côte d'Azur. Mm. Bordeaux Toulouse euh, Blagnac à ah, Lille foo bëgg a dem avion mais pourquoi ñun mënuñ jël avion yu ndaw yu jël vingt cinq trente personnes cinq mille quarante mille francs baax na. baax na kay. mais noonu mooy développer réew BRT bi ñëw ne nañ léegi nañ teg avion yi. man boobu laay def sama RR l'ère des avions de El Hadji Diouf li ma doon Sénégal daa bëri may mun a sama programme. Hmm? kenn amul programme bi ma am. dama ko étudier ak Lucien Feyfex le créateur l'inventeur du crédit bail da nga xool réew xool nga mën a travaillé sur le programme nu ñu mën a développer réew. kon day waajoon na. dañ ko préparer teg suñuy xaalis am suñuy bailleurs am ñu war a jàppale loolu gaa yi xam. moo tax ñu rëkkale la. boo gisee mbooloo mi ma topp man du ma inventé parrainage rek bu mel ni élection présidentielle candidat yi dañu am mbooloo ku ci amul njaga ñaay wala tegoo sa sonorisation ci digg tali bi bañ gaasee la <laughs> doo nit de doo gis nit nit ñi jóg pour parrainage teeru la jël jël fiche ba pare jàlloo quelle injustice mais est-ce que am nañ droit may mu ne foofu lay terminer est-ce que am nañ droit ignorer le parrainage des citoyens El Hadj a été parrainé par des milliers et des milliers ba matal. Mm-hmm. est-ce que am nañ droit ni El Hadj doo jàll. te parrainage lañ ko laaj indiwul ay mburu à la place indiwuma ay ay bulletin de naissance à la place indiwuma ay ay casier judiciaire indiwuma ay ay ay parrainage la ay fiche gis nga xoolal mën nga wane lii. je je envoyé naa ko donc euh, sama kër bi ñuy terminé parrainage yi. Mm-hmm. da sa kii bu ñu ko mënee tegal envoyé naa ko. Mm-hmm. les gosses dañoo liggéeyee jox une idée rek. Mm-hmm. pe pe tegal ko ko. bi bi le ah, euh, dernier réglage Sémène El Hadj Diouf. ah continué waaw le dernier réglage du parrainage. Euh, li ma la dugalal ci public reportage bari na de parce que sama xarit. après mën naa la fay public reportage non non non man duma la fayee ko sama xarit nga. moo non le dernier waxuma bi le dernier réglage waxuma yii sama kër sama biir kër bi ñuy boo yore fiche yi kii kii xoolal xoolal fiche yi ma yoroon sama biir kër laa am les jeunes kii kii fiche yi c'est à Kaffrine mooy dugg. sama kër na ma war sama kër ñu bindalee dernier réglage. dañ hmm. bind ci titre bi. Hmm. mooy ñi ngi wane. dina ko teg. waaw dernier réglage. Hmm. chez Maître dina ko teg mais xale pour li dama mobiliser dix informaticiens ku ne dix mille francs par jour. dix ordinateurs mën luye ko sans condition ordinateurs yi am muy deux cent mille francs par jour ordinateur bi rek dix mille mille par jour muy vingt mille pendant. presque un mois ñu liggéey ci loolu loolu ñaata millions la chaque jour deux cent mille xam ko ñu préparé woon nañu su euh, carte d'identité mhm. dafa fay trente millions caution bu fekkee ne am na ci Sénégal yi nekk fii kenn ko taxaw ne jox na El Hadj Diouf mu ngi dërëm jàppale ma dërëm na ko wax man dama préparé démb tey soo ko ñëw léegi maître justice bi sànq wax nga waxu euh, départ à la retraite bu magistrat mais yow mi nekk acteur judiciaire yan yan benn réforme bu essentielle wala yan réforme yu essentielle lañ ci war a def ci ni justice bi di doxee nomenclature judiciaire justice bi di doxee justice bi mu ngi dox normal seulement réforme boo xam dina ko man réforme bi xam nga la ah. xam nga xam correctionnel ba fa yóbboo nit mu sàcc la ba mu def jaaxum bu rëy ñu àtte àtte ko bàyyi ko relaxé ko léegi yow partie civile nga. yow mi ñu sàcc. yow mi ñu sàcc procureur bu deful appel yow dee nga c'est pas normal kenn du ko àttewaat ci culpabilité ci affaire sàcc bi est-ce que loolu yoon la. ki ñu ne cour d'appel la lépp la war a àttewaat loolu erreur boo xam ne maa ngi ko fi maa koy jooy boobu léegi. maa ngi lancé exertant de la justice. mu demandé loolu ñu changé ko gaaw assemblée nationale loolu sama programme la parce que en droit on appelle ça le principe dévolutif de l'appel appel boo dégg attewaat mm. mais il suffit que nga la partie civile ba ñu def appel préveri moom day kontaan ki sàcc bi ko bàyyi nañ ko te yow d'accord oo ci kenn du ko attewaat affaire sàcc affaire ren li ngeen ndàmpaay ngay laaj bu ko defee gi ne comme sàcc bi topp ñu ko sàcc dafay doo amati dara Mm. erreur bu rëy ngi noonu encore ci réforme judiciaire bu mag bu ñu war a def te boobu ba léegi depuis Senghor erreur boobu mu fi pour lan. ak ban. ak lan mooy nee naa sama programme bi ma amoon mooy ministre de la justice warul am. warul am. waratul am. Mm-hmm. ndax depuis Senghor ba ci Macky Sall dañuy violet constitution bi. Mm. xam nga lu tax. Mm. la constitution proclame solennellement la séparation des pouvoirs. mais yow mais yow noo mën a gisee yow may mun a ñu ne séparation des pouvoirs exécutif dina ne magistrat yi. dina ne magistrat yi. ministre de la justice. Mm-hmm. est-ce que loolu jaadu na. non dañ ni ministre chargé de relations avec les institutions. moom moo war a. diggante moo war a diggante euh, di dem pouvoir judiciaire yóbbu di mu euh, ñëwee assemblée indi courrier par exemple projet de loi bu jógee conseil des ministres. Mm-hmm. ñoo jox président assemblée. bu bureau assemblée siège bu ñoo toog. encore conseil supérieur de la magistrature dama koy dama koy dindi. loo fa teg conseil supérieur de la justice. xamul lu tax justice du magistrat rek magistrat dañu war a conseil supérieur de la justice moom magistrat am avocat am greffier am notaire am huissier am commissaire priseur am expert ñooñu former la famille judiciaire muy le conseil supérieur de la justice ñuy ñuy tabb magistrat yi. di leen di leen di leen ca saytu comme ça ku def lu noonu conseil mooy rëq sa ndigg kuy war a avancer lu moo lay récompenser. nga yéeg conseil constitutionnel bi nag da nga koy maintenir. oui. en l'état. conseil deful dara liñ ko def li ko loi bi def la lay def bu ñu ko woon doublon ci dàq kenn du dàq kenn. mais mais mais mais xanaa. nañ changé loi yi parrainage bi dañ ko changé dañ seet léegi nañ seet nii par exemple ñu yokk yokk par exemple parrainage bi yokk caution bi. mais ñu bay am doublon parce que nag man man man d' accord naa ñu ne jëlaat ba 200000 parrainage may ni ko wala aw ma ko ma xam ne man aw ma 200000 personnes waru ma nekk président mais El Hadj Diouf daaye dajale plus de 300 et quelques mille parrain këram wër Sénégal denc ko déposé 55000 tegal fukki junne ak benn yoo ëpp li ñu ko laaj ñu ne ko déedéet jamaatal da nga amee doublon yu bëri nañ waxee léegi kuy ni par deux cent mille même bu amee doublon da ngay jàll. waaw pour terminer maître yéen da ngeen ñuy fàtte. trente millions yi ñu yokk ba cinquante millions par exemple wala cent millions pour pour nit ñi bañ a bëri trop. xanaa amuloo pro sa programme yow jëloo ci en compte euh, la presse les médias. en kay la presse à la culture. de la presse bi da nga gisee de la communication. bi danaa danaa jàppale presse bi. Mm-hmm. mais dinaa sanctionné. dina sanctionné lu ma nangooti presse boo xam ni saaga rek lañ fay def di terroriser nit ñi nit ñi. yàq deru nit toog di yàq deru nit ku ko def tëj la. Hmm. il faut que peine yi ci diffamation ñu bàyyi ay six mois sursis yi ñu def. Hmm. dafa yomb trop boo yàqee deru nit boo demee tribunal. ñu ñu corsé ko. la règle c'est six mois sursis. Hmm. mais impair ferme ndax nit am lu may lu may deram boo yàqee deram am na njaboot mais mun a am na njaboot am na ñu ko yaakaar am na militant. voilà. wala dernier grand chef El Hadj Diouf Mm-hmm. le dépôt de parrainage. nga xool ñu ni liggéey si xoolal ni booy yi doon régler parrainage yi. Mm-hmm. di ko dajale xoolal xoolal. wala mm-hmm. carton yi parrainage yi. mais c'est bien prochaine fois. di nga di nga di nga xoolal par région yi. war nañu ne dañoo nekk classe pour bañ a juum. yëpp. lii mooy les dernières réclames informaticiens jóg nañu ba dem. mais mais mais ñu dugal ci boîte yi. mais xam nga Thierno Alassane dañ ko éliminé woon deux mille dix neuf. waaw il a appris de ses erreurs et puis il est passé en deux mille vingt quatre et puis yàlla na la chance boobu. non man loolu intéressé wu ma man dama bëgg nit ki li mu li mu yelloo ñu jox ko ko bon xëy na boobu masalu toon moo xamul lu tax jàll. man damaa matal ba ëppale man may mun a dama ma boo matal matalatuma ba doon la ma wut indi doyul maa njëkk ne man wër naa mais aw ma. mais li nga dul li tax du ma d'accord mooy damaa wut am lu ëpp li ñu ma li ñu ma laaj ñu ne ma am na koo xam ne du yow mais am na comme li nga am. ba tax yow dañuy wàññi ci li nga am ba doo matal est-ce que loolu yoon la man loolu laa wax. maa ngi lay souhaiter bonne matal ba ñoom ñii du muy bon Amadou bokk ñu parce que moom deful parrainage citoyen euh, ñoo ay ngand la ñëpp dañoo daw amul kenn ku wax ci ngand nga te te ngand nga parrainage citoyen yéen yéen a fi wax ne ngand la fekk. bu ñu mënee dañu naan ñaas tànnawaat kenn ñoom kañu booy bu ndaw mu yox mag Sall la ñëw romb leen nañ bàyyi yow yéenu benn rek ndax fonction am ni day gaye alors que xamaloo li mu liggéey ci terrain bi ndax man ba muy liggéey ci terrain yow mi xamoon li daa def si àll bi mbooloo mi topp may def samay samay fiche yow yow sa jommi nga tey xam na donc jommi naa ko. non non mbooloo mi ma topp eh, topp ma dañu naan ay parti cabine téléphonique li xëy na ci cabine téléphonique amuñu mbooloo El Hadj amul mbooloo lii du waru mën a mbooloo tey barke alxuraan waxul waru mën a mbooloo dañuy dañuy noog di di ñàkk a fayda nit ñi di leen xeeb fekk du ma seen morom billahi ñu a bëri fi du ma seen morom. merci beaucoup léegi nag mobilisation ñaaka njaay dajale ay stade yore say millions du yàq ko ci sa bopp ngay nax man fii damay dox yegg si wala sa bopp yegg si amul t-shirt amul cap amul njaga njaay ñëppay dox ñëw fees dell kon may ñaan mhm. Sénégal yàlla na yàlla tànn ki gën. amiin ci réew mi. xëy na waru moo nekk président mais ma dama ko préparé woon sérieusement parce que boo tegee la nga war a teg pour gagner. dox fa nga war a doxee pour gagner. Mhm. jëf la nga war a jëf pour gagner da ngay nekk rek ndam. merci beaucoup. kon nag kon ni ko waxee ñu fagaruwaat mu indi ñoom Cheikhou Sëñ Ba président Cheikhou ñu nuyu ñoom Fatima ñoom Oumy Diallo dañu leen leen liggéey mhm. ñoom Assane Manka ñooro mais ñoom Amadou Diallo. jërëjëf. Assane Kene Fall sama adjoint le professeur Edy Jean Malo moo doon sama mandataire ñun ñëpp liggéey xale yi jàmbaar la ñu ba bu dee nag xale yu Adama si Kaffrine toj nañ Kaffrine ay pété ay këy ay mbégee ah daam sow kenn moom ajaratu Ndeye Fatou Faye lu ne def da ko Touba indi moom kenn vingt mille parrain dañu liggéey i dañu liggéey ku liggéey jëriñu ku ñàkk jëriñu jërëjëf yéen Sénégal yéen maa ngi leen di gërëm ñu ñu pare na yëpp xam ngeen da ngeen bëggoon ba rek président yàlla nanguwul xëy na moo gën ci man. la prochaine sera la bonne. waaw ñun naan yàlla rek yàlla jox Sénégal di gën ci Sénégal mu jik Sénégal Sénégal jëm kay ñun ñëpp ñu gis seen bopp ñu lay souhaité ñu war a bokk yëpp ñu bàyyi a bokk. ñu lay souhaité ñu war a bokk war a bokk rek doo bokk. Hmm. ñu lay souhaité bonne chance ba en tout cas man ba souhaité woon naa la loolu nga jàll doon nañ leen am élection bu bu bu gën a intéressant. non c'est problème mooy dañu foog am mbooloo am naa mbooloo deux man ëpp xorom mooy kay jéem a <laughs> da ngay sax. Mhm. Obama noonu di wéy. Mhm. mais ay génn ne lii rek. bon moo nit ñi gënoon nit ñi fii kenn gënu fi kenn kenn daa ko fa jàng kenn. jaar jaar maa ne ah, ku moom wax ji. njëkk leen nekk ministre ñoom. ku moom wax ji ñëpp laay wax dama ni. bu ma demoon ak ñoom campagne ñoom ñëpp laay rey xam nañ seen bopp. dañ ñi dañoo tooy ñii amuñu lu ñu wax ñii dañu amuñu xorom <laughs> xorom si ki ko yore am mbooloo boole ci nekk ministre nekk député am expérience. <laughs> candidat yi jóge Benno ñoo la gën a diis. parce ah? boo amul xorom kenn du suivre émission da am ci vue doo ko am yeneen yi émission boo dem ci télé je bats tous les records. merci jërëjëf de vue. télé yi mën nañu njëkkalante ak ak site internet yi. jërëjëf maître. <laughs> ah dëgg yow nag. dajeeg toujours. di gërëm waa 7TV ndax jigéen ñi man góor nga kanam ndax euh, ci paysage politique paysage médiatique bi yaa ngi samp groupe bu mel nii di ko téye mais de feex macha ak ay résultats. jërëjëf mën nga sabote mën nga ree waaye ci la jigéen ree boo gën muy jooy waaye man comme man damay dóor ngay ree may dóor rek waaw comme ça ma complémentarité nga féetewoo ree bi nga féetewoo fulla ji ndax nag fulla booy ree waaw jàmm nag. non ak bëgg sa réew. non maître tur bu gis tey dama rencontré ay sénégalais yu bëri ñu naan non El Hadj dafa waroon jàll parrainage bi. mais oui li bi laay nit ñi dañ la ko yéene woon de. mais dañ yéene rek président. dañ la ko yéene woon parce que dama am yërmande. élection bi doon doon neex dama je suis généreux je ne ma tàggoo sama bopp. ku yërëm ku bëgg sama askan la. dëgg la ku am expérience jaar fu ne. dëgg la ñii coow yëpp man ñu ko dégg monsieur le ministre. dëgg la. ba mu 2006 ba mu nekk bi ñu ci bëri ñoom tey jii dé xaalis day nekk ministre. dëgg la dëgg la. dëgg boobu nekk député 10 ans 2 mandats. ñu ah non ah, ah non Khalifa Sall moo la njëkk a dégg monsieur le ministre. ak Karim Wade non waxuma ñooñu. ah ah d' accord Khalifa Sall la vieille carte. waaw mais waaw mais moom déedéet bul wax loolu. Khalifa Sall c'est un homme de son temps ñooñu ngay xajal ak ñi ngay boole ah. ñi gañee. ah mais Khalifa Sall ak Karim Wade ñoo la njëkk a nekk ministre quand même. Karim Wade njëkk a nekk ministre daanu nga. déedéet. barke alxuraan ma ko njëkk a nekk ministre. kañ nga nekk ministre. 2006 nga nekk. nga nekk ba génnee la dugg si ma ba nekk ministre xoolal. ah d'accord wax nga dëgg mea culpa. ANACIM la nekkoon. mea culpa ba mu nekk ministre. mea 2008. le Sénégal Karim Nam yéen a ngi monsieur le ministre 2008 mea culpa conseiller technique la woon papaam. mea culpa. waaye xam nga man yeneen bi daal bu ma xeet may ma ma xeet rek. yaa yow tamit xëy na maa ngi leen dégg monsieur le ministre. non non non Amadou Ba woo Karim woo. mea culpa xoolal ba ma dégg monsieur le ministre dama ubbi sama portier may ñëw ñoom ñu seen bureau yi di liggéey non mayaakil ma xeebal sama parcours. ak Habib Sy Habib Sy aussi. Habib Sy aussi Habib Habib a nekk ministre. Habib Habib boobu ah et puis Habib sa. Habib moom kenn xamul. ah non ban kenn xamul fu mu jógee <laughs> ah, waa mais il est candidat de. te Habib. candidat par lan. Habib. la mu ne mu ne benn waay ji bu bokkee moom bu demee dina am de. ah ñi ko ñi ko ngem ba tax. amu ci dara ñi ko ngem ba am doole. nga ne. amuñ dara ni ko ngemb. ki ko ngemb am doole. ma ne koo mën a ngemb fi kenn xam ko am doole. Ah. le peuple. oui mais waaw mais mais mais ki ko ngemb peuple bi am na fu mu. amul ñaari nit man ma demee jànk. Euh, kan moo ngemb Habib xaw ma ko kii man dama daal. Euh, gaa bu la ki ko ngemb amul ñaari nit dafa am ma ne la amul ñaari nit. si. man dama nekk ci terrain bi. ki ko booy boobu ñuy dégg. ma ne ñu ne ma ñu xam ñu ko fii. ban booy. ki nga bëgg a ñi ñam ñabalal dafa am doole. kan Ousmane Sonko non tudd ma kenn Ousmane Sonko moom sur le terrain il est connu sur l'ensemble du territoire national. yore ses réseaux sociaux ma ne nangul ko. dama ni yore ses réseaux sociaux. ma ne yore ses saagakat man yéene naa ko lu ne mu génn wala wala mu ne ko kànda moo xam. yeewu la ba ñu ma ko de. Ousmane Ousmane Ousmane Sonko a été la locomotive de Yewwi. am na ñu dégg am na ñu dégg monsieur le maire monsieur le député. dañoo gëmloo koo xam ne Sénégalais xamuñu ko. Ah. ay xale yu taxaw di saaga nit ñi di taal kër El Hadj Diouf di taal Auchan yi. en tout cas Habib ki ko ngeen am na doole te ay bandi ay voyou. Habib bu ah, bokkee am dara ay voyou ay taal. ñu ne ko dee sa yaay juraat bu dee ngeen fa loolu tax bëgg la xamuñu may wax ñun bëgguñ ko di fitna kooku ngeen jox di la ñun suñu village bii. waaw mais am na ñu doon xool mais am na ñu ko bëgg. cere lañu ak meew reer wala ñu wuti Dakar ñun taluñu ay reyante ñooñu kenn bëggu bëgguñu rekk fi nit. mais Habib moom Habib moom bu bokkee am dara. Habib. Habib Habib sama grand yàlla na am mais da nga xam ne ku taxaw ne man jiw bu ñëwee ma bàyyi. ci ne même pas sérieux. c'est ah, mais c'est le deal. waaw ku taxaw Sénégal yëpp la dul. nga damay bàyyi réew mi waaye may mu ne bu bëggee ma bàyyi yow looy laajee ko. ah mais c'est le bu la bu dee may mu ne moo la jox nag. waaw ku ko jox kay kala jox rek moom moom ngay dawal. mais maître su ma la dénkee sama chaise su ma ñëwee kay nga jox ma sama chaise. waaw d'accord waaye réew moo jël te boo te boo ko respecté. réew moo jël pouvoir bi pas pas kooku dénk dénk. Euh, chaise waaw mais il est porté il va être porté par une coalition. na ko junniy junniy coalition. parrainé parrainé par un homme. Aliou s'est euh, décrédibilisé populaire. il s'est décrédibilisé je l'aime bien mon grand. directeur cabinet du président Abdoulaye Wade lii mu def nii dem jébbalu ci. benn booy du ko amal benn njëriñ taxaw ma ne booy boobu bu ñëwoon ma bàyyi Sénégal yi dañ ko wetti ci loolu. mais c'est de c'est de de la sagesse c'est de la sagesse man fees sama place bi man du ma dara man suq laa man prem non laa kii bu ñëwee rek ma effacé wu. c'est de la sagesse kooku boo ko waxee sénégalais yi. mais c'est de la sagesse kooku mooy yow. doo candidat. il y a une part de sagesse en lui. yow loolu mooy yow doo candidat. non il y a une part de sagesse en lui yow prem non nga xam ne candidat d'après yow doo candidat. Sénégal dañ ko jox koo xam ni. mooy tur kan daan ndàmp na bi jël affaire bi de. ma ni Sénégal du jox du jox réew mi koo xam ni dafay nekkal keneen fii kenn du fi buur fii doomu yàlla amu fi yàlla buur bi rek moo fi nekk ba tax kenn mu ne diw mi fal leen mais man sama problème Amadou Ba loola ak Macky Sall Macky bi ne nañ fal Amadou Ba ma ne ko président moom moo ñu ñoo bokk bennoo yaay sunu xarit mais président suma parti yow la gën a bëgg man la gën a bëgg ne kon suma parti. man la bëgg ma nekk président yow sa parti yow la bëgg nekk président comme jeexal nga sa doo ci tànnal nag suñu parti nee na man lay samp moo tax ñu préparé démb. tey soog a ñëw jërëjëf préparé démb tey soog a ñëw. jërëjëf te dañoo doon duma benn bal benn. billaahi ba ñëwoon élection. waaw yuuxu. dina jël ci kër merci beaucoup maître El Hadj Diouf euh, avocat. Euh, président du parti des travailleurs euh, et du peuple euh, candidat recalé par le par le parrainage et puis on espère que la prochaine sera la sera la bonne mais met ana Adji Sarr avant la prochaine est-ce que est-ce que dara bokk xam dama bokk xam nga benn problème ah si mun nga bokk non mun na nekk ko mën na bañ doo âgé non dama waaw mën naa bokk mais dama ah. président terewuma nalo mu hmm. duma dama politicien professionnel am na yàlla bu ñu politique dañuy dee duñ lekk je suis un avocat international di nga douze ans yi Macky Sall yi ma benn poste parce que je préparais la présidence boo jëloon benn poste tey jii dama ci taqrib lu yox ñu ay ministère bi yaa ko yoroon mën na ma jëlee rek mhm. bàyyi leen ñuy may defaan Macky Sall ñaan waaw pourquoi ma defaan Macky Sall ti moom du jël benn ministère mhm. boobu leneen moom a ñoroon mais nag président de la république bu fekkee ni daw yaa def ma ko Mm-hmm. yàlla na def lu gën mais ma nalaw. ana Adji Sarr. fi ma nekk maa ngi jëriñ sama réew fu ma nekk. Mm-hmm. jëriñ fa sama réew. ana Adji saar lu fi muy eh. sant yàlla. Mm-hmm. Euh, vraiment kontaan kontaan ci ni justice àttee bon xëy na amoon na lu ko naqari woon parce bëggoon na kutu kut sanction bi gën a metti gën a kii mais xam na ni malgré tout jox nañ ko dëgg malgré tout tëj nañ sa waay. malgré tout jox nañu ko ndàmpaay vingt millions pour mu dàmp xolam am na ñu wër daan daa perte ku perte dana jox vingt millions. mais mais mais il deux mois mu ngi nekkoon ci ay jafe-jafe naan dafay. waaw xale la elle n'en peut plus de cette vie là dafa ay bandi bu ñeen di koy rey ay terroristes yoo xam ne ñoom terroristes lañ ñu taalee kër El Hadj Diouf bëgg dafa lakk rey Adji taal sama kër bëgg taal Adji Sarr ñëw pour ay ma. mais mais mais je veux dire situation am lan mooy situation am actuellement. waaw dafa dafa ay rek da ko war a. dafa am dafa am ñoo xam ne dafa dafa tax yéen lu ko cour de justice de la ni kenn parti boobu bay bañ a tudd du sax Pastef bi ngeen oo te amu leen droit invité waa Pastef ci seen émission yi. lu tax amuñu droit ndax parti ko tas. waaw tas parti bi mais c'est des hommes politiques. mais yéen a bëgg dina la. par force lu tax amuñu amuñu droit invité kon mu ngi mel tas tasu leen. non mu ngi mel tasu pourtant bi maa seet yenn journalistes yi. Eh, ñooy xam ne amatul. maître billahi pourquoi bi ñu tasee parti bi ña nekk assemblée nationale nekk Pastef pourquoi déchoir ñu leen. ci de seen de seen mandat d' moo tax. peuple bi moo leen fal. d' accord peuple bi moo leen dañoo voté. ñu war leen jox parole parce que falul kenn député. waaw mais peuple bi moo leen fal c' est le qui est élu par le peuple représentant du peuple. qui est membre de l'ex parti. mais il n'est pas ko jox parole. alors ah, wax yow yow doo doo doo kii tàngaloo droit. waruñu ko jox parole. kan Birame Souleye dama la jox exemple Birame Souleye mais le parti Pastef waratu moo ko invité comme vice président ou coordonnateur du parti Pastef. mais du loolu la ñuy def. loolu la la wax bu ñu ko invité on met pas. Euh, vice président de Pastef mais tur boobu waratuñu ko wax. jël cour de justice la CEDEAO dañ ko bind ñoom seen avocat am nañ lu wat je crois deux cent mille avocats biñ demee ñu ne dañoo dañoo bëgg réintégré waat sa waay ci liste électorale yi ba pare seen parti bi ñu réhabilité ko CEDEAO di leen jóge fële yéen li bëgg si ngeen di wax ak li ngeen di def parti bu dangereux ngeen pour la cohésion sociale yéen ay taal yépp la état bi yóbbu woon leen li tax woon leen lim taal yépp ak ak ak gatsa gatsa day dem président délogé ko def ko comme tegate ko par ay morceaux ensuite j'ai besoin de deux cent mille jeunes cooki fin nañ daje Dakar déloger président bu mu yeggalee mandat bi wax yu garaaw yooyu ku ko wax dañuy dissoudre parti ndax ba insurrection nga oote. mais c'est vrai c'est un débat. ba pare amatul droit ñu ah. toog ñu naan ex-Pastef wax leen seen tour noonu ñu indil nañ ñu ñu tere ñu invité leen. mais parti bu ñu interdire. war ko dul fonctionner nga invité benn membre am en tant que membre de ex nangam mais yaa ngi continuer partenaire ba léegi partenaire bi du naat. CNRA de. partenaire bi taxaw CNRA de. Euh, partenaire bi ñëw ci réunion yi mu ñëw ci. ay ay ay jàkkaarloo ay fii ay Ndoumbélaat ñu toog ñu naan ex Pastef loolu naa fekk la ñun CNRA saisir ñu. ñun CNRA mooy suñu organe ñun suñu suñu suñu organe CNRA mooy suñu organe de régulation. te saisir ñu ragal naan ex-Pastef il faut ñu tur bi tur bi dañ ko interdire. mais du ñu wax ex-Pastef lan la ñuy wax. mais mais amatul loo amatul ñu koy tuddee un parti bi su ko di wutulu. ex Allé Seydou Nourou Tall. donc bu ñu war a wax wala wax Allé bu bees feneen. <laughs> Allé bu nekk d'accord merci beaucoup <laughs> jërëjëf ñu Allé Maïmouna Ndour ñu ñu rappelé ko ba Allé Fatou Diagne au lieu de Fatou Diagne ñu ne ex ex Maïmouna Ndour Fatou bees na même Ndour amatul. waaw pour pour nit ñi gindee ko rek la lu ngeen vous avez besoin de ça pourquoi pour indiwaat yooyu ñu dundaat sous une autre forme pour ñu ñu dundiwaat dundaat loolu affaire naa fekk la ak tàppet ak ragal <laughs> il faut ñu tourné ba ñu leen a mere mais waratuñu leen tudd ci gémmiñ mais ku leen ragal. ñuy lu ñuy ragal ci ñoom. ex-PDP non lu ñuy ragal ci ñoom. ak ku ragal kan ah mais man chaque jour ci menace de mort laa bokk di laa dëkk di. non ma ne. premier jour euh, affaire Adji euh, ma ne Sonko est-ce que invité plus une info non si. ñu menacé de mort. dañ may saaga dañ may harcelé ñu ne menaceur la moo tax nag. waaw xam ne li may wax du neex seen yàlla. ah non non je de moo am ndax invité na la rek la première fois mi ko saaga ku may invité temps bi indi saaga la. mais ñun ragaluñu kenn dañuy def seen de moo ba nga def ko fii ci tableau bi. d'accord fàttali xam mais loolu nekkatul information. ci man non dafa am amati amati amati amati. menace de mort yooyu safatuma safatuma. kon xam ci lañ nekk ñoom. safatuma waaw lu leen tuddee nag. waaw mais man looloo tax ñu di sutureem tas leen. ma ne ay rekkatu nit. waaw <laughs> merci merci merci beaucoup dimbali Sénégal yi. Ah? une presse courageuse. mais nga yaakaar ñun amuñu fit jigéen mën koo nekkoon <laughs> mais dañu leen gën a pousse. ah toppandoo yéen a rek maître. ndax ku dee ku ñu tur boo xam waaw dañ naan dañ naan le défunt dissolution dañ naan léegi la. <laughs> jërëjëf maître mais mais mais mais ça c' est c' est beaucoup. c' est une violation de la décision de l' autorité. waaw kañ nga may kañ ngay bàyyi Adji Sarr mu ñëw waxtaan ak man pourquoi yow nanguloo Adji Sarr def ak man interview. ku la ko ah man kay fois jéem naa def interview. ak Adji euh, mais mais mais à chaque fois doo nangu. non est-ce que man maa moom Adji Sarr. ah man maa moom Adji Sarr. ah mais conseil am nga. waaw parce que ba mu tàggee ba tàggee. ah yaayam dee bàyyam nekku fi man la gis. waaw d'accord mais pourquoi doo nangu pourquoi doo nangu mu ñëw def ak man émission. kon man man dafa mel ne man maay waajuram. waaw mais pourquoi mënoo ko bu ñëpp dawee maa taxaw. mais pourquoi mënoo ko bàyyi mu ñëw def ak man émission. non ayu ma ko dañuy xool opportunité bi rek. Hmm. bu dee jar na ko parce que bu dee yenn wax yi ñëw ko ba mu tontu ci ba ne ko non non non. am nañu ay teesante non pas mu tontu ci pas ay teesante bu ñu jël interview. mais on a envie de la de de la faire parler. toog ngeen wax ndànk mhm. posément. Mhm. sans aucun piège mu expliquer. mais pas pour l'amener parce que moom aussi xale la neex naa jaxase xam nga jigéen ba pare xale la xel xale la yore. merci jërëjëf. jërëjëf maître El Hadj Diouf euh, président du parti des travailleurs et du peuple euh, candidat boo xam ne nag malheureusement euh, yett àggalewul ma kiyam yéeneem mébétam mais ñu koy ñu koy ñaanal waaw l'homme waaw l'homme ñu koy ñaanal et puis ma leen di retrouver euh, suba incha allah euh, pour euh, le dernier numéro de la semaine samedi aussi dina dinañu leen samedi dimanche dinañu revenir ci li nga xam ne moom mooy la validation des candidatures au niveau du conseil constitutionnel et puis pronostic ah? ñaata jàll. non xaw ma de. yaa ngi gis non non non non xaw ma ñaata mooy jàll conseil constitutionnel dina ci wax et puis ñuy souhaiter chance au lion du Sénégal euh, di leen féliciter féliciter ah pour euh, la maa leen di ñaanal en ah. tant que ancien président du Jaraaf ndam ko wuti ndam li non pas man ko jëli ndam li jëliwaat ndam yàlla ko suñu borom def merci au revoir.